أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi suratul baqara di tàmbale aaya 94 ba aaya 98 juróomi aaya yi nekk sunu kanam borom bi tabaraka wa taala mu ngi ci tontu yahud yi ak di neenal seeni lay lay yoo xam ne yu tegul fenn la lay yu doyadi ci aaya 94 bi borom bi tabaraka wa taala mi ngi ci digal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam na leen yonent bi wax laaj leen jàjj leen ne leen bu fekkente ne ñoom ñoo moom àllaaxira li ñuy wax ci ñoom dëgg la ci dëgg lañ nekk àllaaxira ñoom ñooy dugg aljanna keneen ku dul ñoom du dugg aljanna nañu bëgg dee nañu bëgg dee bu ndee ñu noppalu dugg aljanna coono àdduna wàcc leen ak ay jafe-jafeem yàlla ne bu fekkente ne yonent bi wax na leen loolu ñu lànk kon ñu xam ne ñoom dañoo wax lu nekk ci ginnaaw dëgg kon mu leer ci ñoom ne ay yéeféer lañ suñu faatoo safara lañ jëm ci lu leer loolu mooy aaya 94 ci aaya 95 borom baa ngi xamal yahud yi ne duñu bëgg dee mukk ndax xam nañ ne seen pas-pas wérul dañoo bëri ay bàkkaar xam nañ ëllëg yi leen di xaar mooy mbugal mu métti ay tooñkat lañ te kuy tooñ moom fi ngay mujj rek mooy safara ci teewaay yu mel nii la yàlla di jàjj yahud yi ak ñi mel ni ñoom di leeralal jullit yi ci koy yahud yi ndax ñu bañ a mel ne yahud yi ci ay 96 yàlla mi ngi xamal jullit yi di xamal yonent yi ne ko ki gën a bëgg dund ci àdduna mooy yahud te loolu tey boo koy jàng di nga gis ne àddina bi yëpp yahud yi ñoo gën a bëgg a dund xool ko ci seen soldat yi bu ñu pertee benn soldat day mel ne yahud yëpp a dee loolu moo lay wan ne dañu bëgg a dund yàlla mu ne kenn ci ñoom sax dina bëgg a dund junni at waaye loolu yëpp amul importance parce que dund gu teguwul ci dëgg lu mu gudd guddi borom bu dee dem safara dudd googu amul njëriñ ci aye 97 borom baa ngi leen di tontu ba tey ñoom yahud yi ba ñu laajee ne ñun di am na malaaka yu daan ñëw ci suñuy yonent daan indi wax yu yow yonent bi kii ñëw ci yow nu mu tudd mu ne leen jibril ñu ne kooku mooy sunu noonu ñun kooku rek lañ bañ ndax kooku moo fi indi mbirum xeex ñun daal Mikaayil moo ñu gënal ci biir ndax Mikaayil moo yor mbirum taw bi ñun moo tax mu ñu bëgg ko Jibril moom sunu noon bu wóor la ci aaya 98 borom bi di leen xamal ne képp ku noonu sama xarit kooku sama noonu la ku noonu samay malaayika wala nga noonu Jibril li wér tey mbir mooy yow noonu yàlla tabaraka wa taala nga ci tënk juróomi aaya yi ngoonu tey gi insha allah moom lañ fas yéene jël ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزه وما هو بمزهزه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين يقول جل وعلا برب تبارك وتعالى منه قل وخل يوم محمد صلى الله عليه وسلم لاج لين نلين in kaana lakum daarul axira bu fekkee kër boobu tudd alaxira ëllëg yéen yéen a ko moom yéen kenn qul waxal in kaanat lakum bu fekkee def leen ñeel ak daarul axira kër googu tudd alaxira yéen yéen a ko moom inda allahi fa yàlla yéen yéen a moom kër googu xaalisatan yéen dong la ñeel keneen bokk ci min duni naas walis nit ñi fatamannawul mawta mébét leen dee bëgg leen dee in kuntum sadiqin bu fekkee wax ngeen dëgg bu fekkee alaxira daal yéen yéen a moom kër googu tudd alaxira ndeysaan aljanna yéen a ko moom keneen bokk ci min duni nas yéen rek yéen la ko yàlla jagleel xaalisatan yéen kese kese keneen bokk ci fatamannahul mawta bëgg leen dee ku xam kay lu neex moo lay xaar sa kër da ngay mébét teel a wàcc teel a dem sa kër su fekkente ne xam nga ne yow aljanna nga jëm da ngay bëgg dee xoola saxaaba yi kenn ci ñoom bu demoon xare deewul day critiquer boppam moom lan moo tax deewul am na ci koo xam ne doon lekk tàndarma mu dégg ñu ne hayya alal jihaad mu ne baxin baxin daal di sànni tàndarma yi daal ne ba ma fi toogee di lekk tàndarma yi ba tàndarma yi jeex dafa may tere dugg aljanna noonu la ko jéggee ne ñu jam ko mu dem dugg aljanna keneen ki moom dafa am seet di seetu démb ci guddi lañ ko may jabar muy seetu mu dégg hayya alal jihaad mu dem romb seet bi dem ñu daal di koy rey mu daal di dugg aljanna biñ ko reyee ñu gis lu kenn mus na gis ku dee ci jihaad kenn du la sang kenn du la sang dañ lay jël rek gas ba mu xóot daal lay dugal moom ñu gis malaaka yi jóge aljanna yor ndox di ko sang lu tax parce que bi muy dem ci fajar dafa àndoon ak soleil te mu seeg soxna si ba pare sangoo malaaka yi ñoo ko doon sang pour mu dugg aljanna ñooñu ak ñii duñu benn ñii dañoo bëgg dee ñii bëgguñ dee moo tax ñoom biñ ne ñoom ñoo moom aljanna ñoom kese kese kese xaalisatan min duni naas ñoom kese ñoo ko moom nit ñi bokkuñ ci la la leen yàlla wax fàtta mën na um te bëgg leen dee fekk yéen moom aljanna bëgg leen dee ku bëgg aljanna da ngay bëgg dee gis nga ñun suñu melokaan tey boo déggee léegi kenn dee nag léegi nag yéen ñëpp ku nekk commencé di yuux di yuux di jooy xam na ne suñu alaaxira wóorul moo tax bépp benn sénégalais bëggul dee parce que xam na ne liggéeyuñu dee ku ko ñemee da ngay liggéey ñi ñeme dee yëpp dañoo liggéeyal dee moo tax faalewuñ dee parce que dañoo liggéey lu nekk ci ginnaaw dee ginnaaw dee ku liggéey lu fa nekk yaru ngay tiit ngay ragal gis nga ñu liggéeyal ginnaaw dee bu ñuy faatu sax da ngay dégg yàlla mu ne laa xawfun alayhim wala hum yahzanun du ñu tiit seen ginnaaw liñ fi bàyyi àllaaxira giñ jëm du ñu jàq su nit di tukki yorul benn bagage bu ñuy tere ay kayitam yëpp valable mu yor lu mu def ci poosam yóbbal kooku doo am problème aéroport bu mu wàcc doo am benn problème c'est parce que mu ngi en sécurité yorul lu ñuy tere ay kayitam yëpp a mat bu nit di dem alaaxira tamit noonu la bay dem alaaxira fexee rek bul yóbbaale bàkkaar loolu rek mooy problème na nga fexe say tiyaaba ëpp say bàkkaar alaaxira moom voyage la boo xam ne sooy dem say bagage moo lay jiitu dëkk bu mu tudd alaaxira bu fa nit di dem ay bagage am daf ko war a yóbbanti ba pare doog a ñëw moom fii àdduna buy tukki boo nekkee ci oto bi bagage yi nekk ci ginnaaw wala ci kaw bu dee ci avion bi nga nekk bagage yi nekk bu dee ci bato bi nga nekk bagage yi dafay nekk amma àllaaxira da nga yónnee bagage yi ba pare doog a ñëw loolu moo tax ku jiital ay bagage am nag bagage yi nekk lu baax nekkul lu ñu tere kooku jarul muy tiit jarul muy jàq parce que kooku dafay dem ci xaritam mu yóbbu ko aljanna day dem ci yàlla yàlla yóbbu ko aljanna ndeysaan ibrahima alayhi salaam li muy faatu jibril dafa ñëw ne ko yàlla nee na sa dee jot na mu ne jibril atara xalilan yumitu xalila xarit di rey xaritam foo ko gisee jibril dem ci yàlla ne ko ibrahima nee na est-ce que xarit dina rey xaritam yàlla ne ibrahim jibril boo demee nga ni ko hal yakrahul xalil liqaa xalili est-ce que xarit dina bañ a ñëw ci xaritam hmm? est-ce que xarit dina bañ a dem ci xaritam yow bu fekkee xarit ci yàlla nga yàlla di la gis da ngay sawar dem ci moom ndeysaan waaye ñun ñi bëri na ci ñun ku malakal moo ci doon fekk nga toog mu ne dama lay jël si yàlla baax na sax malakal moo buy ñëw ñun duñ ko gis heure bu fekkoon dañ koy gis heure bu fekkoon dañ koy xàmmee xool kon de du du fekk ñu bëri fu mu leen war a rey kon de xam naa malaaka bi dina mën a nekk ku mën a daw te pourtant bis bu nekk kenn ku nekk ci ñun dina la visiter cinq fois pour xool ndax war nga dee tey ci journée bi wala waroo dee cinq fois kenn ku nekk ci ñun malakal mawti dina ñëw ci cinq fois ci bis bi xool ndax war nga dee wala waroo dee kon alaaxira kër la goo xam ne ki fay dem warul tiit dem fa c'est parce que yàgg-yàgg da nga fay dem munoo muus ak waane ba doo fa dem waaye alaaxira kër la goo xam ne ki ko moom mooy ki ragal yàlla mooy ki jaamu yàlla moo tax yàlla mu ne leen yow Muhammad laa jël ñii ne leen xul na nga leen wax ne in kaanat lakum bu fekkee ñeel na leen yéen ñii daarul axira kërug alaxira indallaahi ci yàlla xaalisatan yéen dong la ko jagleel min duni naas keneen bokkul du dugg aljanna yéen dong yéen a ko moom fata mën nawul mawtu bëgg leen dee nit bu xamee ne bu dee day dem aljanna te muy ragal de wala bilaal bi mu nekkee ci sukuraat jabar ji dafa toog ci wetam naan waa musibata ay man woo naa sama musiba waa musibata ay man sama musiba bi fi ma koy waxee bilaal mi ngi ci sukuraat mi ngi naan ndaw si laa xuuli waa faraxta déedéet waay soxna si bul wax woy sama musiba waxal woy sama kontaante ndaw si ne ko lu tax mu ne ko gadan alqil ahaba muhammadun wa sahba ëllëg soppe yi laay dajal sama soppe bi laay dajal Muhammad laay dajeel ak saxaaba yi kon waxal kontaan na kon Bilaal lan la gëm moom mais àllaaxiraam moo ko nar a dàqal àdduna moo tax mu ne jabar ji waxal kontaan naa bul wax woy sama musiba mais waxal kontaan naa est-ce que Bilaal kese la jëlal Usmaan ibnu Affaan woor na ndeysaan ci jamonoy fitna ci bëccëgi fitna moo tax fitna yàgg naa dugg ci réewu jullit yi jaxase rambaaje fexe ba jullit yi bokk jàkka te duñu nuyonte fexe ba jullit ñi bokk quartier te duñu bëggante yàgg na tey yàgg na Ousmane lañ fekk mu woor ba ngoon ndeysaan yor alxuraan di jàng ñu ñëw rendi ko ba cëg biñ koy rendi dafa nelawoon muy ci biir nelaw gi mu gént gis yonent bi yonent bi ne ko Ousmane soo bëggee ndogu su ci man boo bëggee ma defal la sécurité mu ne ko tànn naa ndogu su ci yow moo tax ñu daal di koy rey noonu ñu rey Ousmane dañu reyee Umar mun lañu reyee Ali waaye kenn ku ci nekk ci ñoom da ngay gis bi ñu lay rey dangaa mébét dem ci yàlla tabaraka wa taala dangaa mébét dem àllaaxira àdduna soxlaatoo ci dara ali mu ngi julli ci fajar jàkk ñu daal di koy jam mu buddi paaka bi daan ne fustu wa rabbul kaaba dugg naa aljanna giñ naa ci borom kaaba gi li ma bëggoon am naa ko mooy texe naa may dugg aljanna ñii ñoom bi ñu xamante ne alaxira ñoom am nañ fa dara dañoo bëgg a dee yahudi ñoom bi ñu xamee ne alaxira bëgg amuñ fa dara bi ñu wootee woone ñoo ko moom li leen yàlla proposé rek pour ñu xam ne ñoom ñoo ko moom mu ne fata man na ul mawta bëgg leen dee in kuntum sadiqin bu fekkee li ngeen di wax dëgg la bëgg leen dee ku bëgg dee day fekk jaamu na yàlla ñi bëgg dee yépp da ngay gis ne jaañoo bëgg dañoo jaamu yàlla moo tax ñu bëgg dee waaye ni mel na nun nga xam ne dara lañ deful ci jaamu yàlla foo caaxaan rek ndax kenn ci bëggul dee balaa nga xam ne ñoo bañ dee sax nga gis am na ñoo xam ne ndeysaan duñ la mus a jàppal ci kees bi ñu def ku dee gi am ñoo xam ne bu ñu gisee kees gi sax da ngay gis ñu naan auzu billahi mina shaytaan rajim di di upp upp mu summi seen mbaxane wala ñu jël seen musóor di upp am na ci nit ñoo xam ne du ñu lekk ceebu bëj balaa ngay xam ne nag gars yi ñoo ragal dee nga jël yére ku dee ki may leen ko duñ ko sol bu nit dee ndeysaan ba ñu séddale yére yi ñu ne yow am yére bii ngi dee mu ne waaw waaw waaw indi buñ génn ji ko may nit dee ñu fanaanoog moom nag doo ko gis mukk nit dee ñu fanaanoog moom lu mu guddi guddi ñu fëgg ji ki yor caabi jàkka ji lu mu guddi guddi ndeysaan lu mu guddi guddi doo gis mukk nit dee ñu bàyyi ko ci kër gi mu fanaan fi bët set ñu bañ a déranger nit ñi jamais nit dee na rek yuuxu nañ pour nit ñi ñëw dimbali leen ñu mun koo génn kër gi ndax ñu mën a nekk en l'aise bon kese la ndax ragal dee waaw ndax ragal dee dee moom ku ko ñemee def ko koo ragal def ko ndax dee mooy kattan gi yàlla sadd ci loosu jaam yi bëgg dee bañ dee foo nekk dee ay na ma takunu yudrikumul mawt yàlla ne fu ngeen mën a nekk di ngeen dee wala kuntum fii burujin musayyada bu ngeen nekkoon ci ay kër yu ñu def tata ba dara mënul dajji miir yi dugg fa yàlla ne na malakal mawti dina fa dugg fekk leen xale leen daawuda ku fiiroon la yeneen yàlla daawuda dafa fiir su daan génn këram day tëj jabar gi ci biir néeg bi tëj buntu kër gi def caabi yi ci boosam dem benn bis mu tëj jabar ji tëj kër gi dem muy ñëwaat mu gis benn waay toog ci benn chaise nekk ci digg kër gi di ko xaar te tëj na kër gi mu ñëw ne waajee loo fi def yow yaay kan waa ji ne ko maay ki miir yéeg bunt yéeg caabi yi mënta téye man ay bunt mënuñu maa téye ay miir mënuñu maa téye mu xam ne malakal moo ci la loo fi wut mu ne ko yow laay jël si ne mënoo ma ko woon wax ko an sa papa ko dee na an sa yaay ko dee na an sa maam mu ne ko dee na mu ne nga xamoon nga ne yaa ci topp ku am papa mu dee nga am yaay mu dee nga am maam mu dee nga am dëkkandoo mu dee nga am jabar mu dee nga am doom mu dee boo doful war a xam ne yaa ci topp mu ne ko yow mi yaa ci topp waroon nga xam ne yaa ci topp loolu mooy dee alaaxira comme yahud yi nee na ñoom ñoo ko moom yàlla ne leen fatamannaul mawta bëgg leen dee in kuntum sadiqin bu fekkee yéen na dëggu fekkee yéen a nekk ci dëgg alaaxira kër la goo xam ne yéen dëngu yéen a ko moom yéen la ko yàlla jagleel ngal la waay bu fekkee loolu dëgg la in kuntum sadiqin fatamannaul mawt bu fekkee dëgg la bëgg leen dee addaarul aaxira almuraadu minha naimiha kër googu ñuy dégg ñu naan këru àllaaxira li ci yàlla bëgg wax ci aaya bi lim ci namm mooy xéewal yi fa nekk wa ma aaddaha llah ak li ko yàlla prépareel fiha li awliyaayi yàlla li mu prépareel kër googu ci ay xaritam ci ay xéewal su fekkente ne dëgg la yéen yéen a moom xéewal yooyu yéen ay xariti yàlla ngeen dara du leen jar ci àdduna lu rek ngeen bëgg a dee dajeeg yàlla man ahaba liqaa allah ahaba allahu liqaa ku bëgg dajeeg yàlla yàlla bëgg dajeeg yow képp ku bëgg dajeeg yàlla yàlla bëgg na dajeeg yow ku bañ dajeeg yàlla yàlla bañ na dajeeg yow waaw ku bëgg dajeeg yàlla yàlla pare na pour daje ak yow waaye ku bëggul dajeeg yàlla nag yàlla bëggut a dajeeg yow te ku jaamu yàlla moom day bëgg dajeeg yàlla xoola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee ci sukuraat sukuraat bu métti yonent bi dafa sukuraat sukuraat bu métti kenn ci ñun buy dee méttitu dee am nu mu toll yonent bi ñaar la ko yàlla branché ba mu naan laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat léeg-léeg mu ne amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla dee moo métti léeg-léeg mu ne allahumma hawwin alayya sakaratul mawt yàlla yàlla na nga oyofal sama méttitu dee bi léeg-léeg mu ne subhanallah inna lil mawti la sakarat sell ñeel na yàlla dee moo métti yaay Fatima moo jël benn këll def ci ndox def ci benn morso day wañ morso bi ba mu fendi mu teg ko ci bopp yonent bi morso bi wow ndax tàngaayu bopp bi léeg-léeg Fatima tiit daan ne waa kar ba aba ay waay sama mettitut baay bi ay waay sama papa sonn nga mu ne ko laa karba bi abik baadal yow ginnaaw tey dootuma sonn ginnaaw tey coono jeex na mooy ginnaaw bu ma génnee àdduna coono yëpp àdduna la yam bu ma génnee àdduna coono jeex na jullit coonom yëpp mu ngi yem dee dee yéeféer nag mettitam mu ngi tàmbalee dee dégg la li ma wax de jullit mettitam mi ngi tàmbale fan àdduna fan la yem dee jullit yéeféer problème am mu ngi tàmbalee dee moo tax yéeféer yi bu ñu duggee safara xam nga lu ñuy wax eey yàlla génne ñu fi rey nu ak a neexoon tey ñu dee wala dee la ji bëgg mettitu alaaxira dee la tàmbalee kon coono yi fu mu yem kenn xamu ko jullit nag ceenoom coonoom mi ngi yem dee su yàlla rendee dee bu nit ñi duggee aljanna ñuy dugg safara yàlla day indi dee ba ci diggante aljanna ak safara rendi ko daan na yéen waa aljanna bala mu koy rendi lu ngeen wax ci waa ji ñu ne rendi ko ndax mu bañ a ñëw dugg fi aljanna di ñu génne ñu ne yéen waa safara lu ngeen wax ci kii ñu ne yàlla bul ko rey bàyyi ko ndax mu ñëw dugg fi génne ñu ñu daal di koy rendi daal di jàkkaarloog waa aljanna ne leen xuluudun bila mawt sax leen éternellement dootu leen dee ñu jàkkaarloog waa safara ne leen xuluud bila mawt ñu yuuxu nday sax dañuy yuux yaa malik ñuy woo malaaka bi gaada safara naan ko uddu lana rabbak li yuxaffif li yuxaffif anna yawman min al azab ay waay malik wool ñu sa borom wax ko nañu baal rek benn fan benn fan rek benn fan rek lañ koy ñaan nañu baal xam nga leen malik di doon innakum maakisuun yéen da ngeen di sax bi safara éternellement kon mbokk yi lu rëy moo nuy xaar loo xam ne mi ngi tàmbalee dee doog a jëm àllaaxira ab jullit nag day préparé dee soo bañee am jafe-jafe àllaaxira da ngay waajal dee tukki boo gis borom tukki bi day waajal tukki bi wala ah tey kenn ci ñun bu ñu ko mayoon visa ne ko da ngay ndogu ji léegi léegi léegi États-Unis wala Italie da ngay ñibbi préparé ji wala ah ok léegi léegi sax nga ko yëg te du tere nga préparé bu ñu la ko waxee bu yàgg nag da nga toog ay weer di préparé teew Sénégal nga jóge ci àddina la nekk yaa ngi jëm Italie àdduna la. wala Sénégal nga jóge États-Unis nga jëm àdduna la Sénégal nga jóge France nga jëm àdduna la tukki bii nag yaa ngi jóge àdduna dem àllaaxira voyage sans retour tukki boo xam ne doo dellu waaw tukki bi dootoo ñibbisi de wala gis ngeen ñi demoon ñëwaat kan ci yéen moo gisoon ku dem ñëwaat ndeysaan dox bi dafa romb armée yi mu ñëw nit ñi ne ko waaw dof bi waaye yow yow armée yi loo ci wax mu ne gars yi nee nañ tekk de ak a ñoo mënoon a yuux mu ne ñi doon saraxolle ñu ngi fi tëdd ñi daan nodd ci jàkk yi ñu ngi fi tëdd borom làmmiñ ñu rëy yi rapporteur yi ñu ngi fi tëdd ñu ne ko ha mu ne mu ne fii mooy cité Thiel leeral ku fi dugg ne Thiel kii na dof bi tey wax na wax de wax na dëgg ah foofu mooy cité Thiel leeral ku fa dugg ne Thiel borom bi tabaraka wa taala nee na ci baatu xaalisatan mu ne xaasa laa yadxuluha ahadun siwaakum yéen kese kese la keneen du dugg aljanna ku dul yéen ci baatu tamannawul mawt mu ne tamannawnahu fi nufusikum watlubuhu bi alsinatikum fa inna man kaanat lahu daaru laaxira laa xayra lahu fi baqaihi fi dunia bu fekkee yéen yéena moom alaxira te man naw nal mawta bëgg leen dee te man naw nahu bëgg leen ko fii nufusikum ci seeni bakkan bu leen yem ci bëgg ko rek mais wattulu buuxu jóg leen sàkku ji ko sahaaba yi nga xam ne ñoom xamoon na ne alaxira ñoom ñoo ko moom dañuy dugg aljanna ñoom dañ doon jóg di sàkku ji aljanna xaalid ibnul walid daraan wax sahaaba yi mu àndal ñi muy xeexal xaalid bu indi woon armée jullit yi nekk ci ginnaaw mu taxaw ci kanam mu jàkkaarloog yéeféer yi balaa muy xeex ak yéeféer yi day def discours ba pare daan ne yéen yéeféer yi ñu koy dégg mu ne leen ataytukum bi qawmin yuhibbuuna al mawtu kama tuhibbuuna al xayaat mu ne yéen yéeféer yi ni ngeen bëggee dund ñii ma àndal sama ginnaaw noonu lañ bëggee dee ñii dee lañ gën a gëm ak dund parce que dañoo gëm ne buñ dee dugg àjjana benn saxaaba yonent bi nee na yàlla mësta feeñu nit di wax ak moom face à face lu dul kenn kenn nee na saxaaba bi yàlla da ko feeñu ne ko waxal loo bëgg ma defal la dafa dem ñu xeex ñu rey ko dagg baat bi boppi daal yàlla dugal ko aljanna ne ko waxal loo bëgg ma defal la mu ne yàlla nga delloo ma àdduna ma xeexaat pour ñu rey ma yàlla ne ko loolu moom mënatul nekk ndax àdduna moom waxoon naa ku fa jógee doo fa delluwaat mu ne man yàlla loolu doog laa bëgg nag nga delloowaat ma rek ma xeex ñu reyaat ma tey sax xool kooku lim bëgg ëy fii ku yàlla feeñoo ne la loo bëgg visa visa laa bëgg visa wala mu ne 4 4 wala mu ne R plus 4 ñun àdduna rek moom di teeloo c'est sérieux àdduna rek moom moom lañ gëm ñii nag alaaxira lañ gëmoon parce que dañoo xam ne alaaxira mooy kër gu des àdduna day jeex fi mu nekk nii ay temps yu yu yu yu yu yu nekk ci ginnaaw rek yu ñu passé ci fii ci biir jàkk gi am na ñoo xam ne xamuñu benn waaye bu tuddoon Njigo Kebe xamuñu ko mais am na fi ñoo xam ne ko suñ ko xamul it dégg nañ ko buñ ko gisul it dégg nañ ko wala dañ daan wax ne ñu ëpp alal ci Sénégal ñaari nit la kenn kaa ngi tuddoon Njigo Kebe keneen kaa ngi tuddoon Jéli Mbay loolu ñëpp dégg nañ ko Sénégal ñoo ñaar am nañu tey ndax kenn mën na ma cee jox tontu. ana ñu dee nañ ana lañ amoon yóbbaale nañ ah déedéet loolu moo tax ah waaw loolu moo tax adduna amul importance yàgg-yàgg walaw ista alfa amin wa alfayni baadahu fala budda yawman tadulu tam soo dundoon junni at ñu wisaat la yeneen junni at yàgg-yàgg da ngay dem bàmmeel fii mënoo fi nekk éternellement et puis bu dund gi yàggee nga soof sa bopp wala nga soof say mbokk dañ lay mujj di la tëj ci néeg bu yàggee boo yàggee dund di dem di dem ba ci kanam bu yàggee kenn dootul bëgg a gis waa kër gi ci sa bopp nga xam ne ndeysaan yaa leen jur dañ lay tëj ku ñëw ñu ak seen pap mu ngi ci biir day nelaw mu ngi tane waaw fekk nelawoo dangaa soppeeku dangaa commencé di dem àll ba sa tubéy yenn saa yi sax nga koy lekk loolu la yàlla wax yaa nee na nit bu guddee fan dama koy yóbbu ila arzalil umr comme ni mu nekkee woon xale yaayam di ko kuus di ko boor xale tey xale yi di raam nii boo leen bàyyi woon fii bu ñu demee àll ba boo leen bàyyi moom luñ koy def léegi ñu jàmb ko lekk doomu aadama day nekk mag yàlla delloo ko foofu nga tegal ko lekk ndékki mu mu ndékki ba pare ne la ndékki ma de ñu nekk ci guddi mu ne ci bëccëg laa nekk dootul xam ne temps bi sax temps bi sax dootu ko xam ne mu gis doomam nuyu ko ne kii kan la noo sant yow doomam boo jur taawam yow yaay kan kii kan la waaw papa xam ne doomam commencé jooy xam ne kon waaw yàlla rek mooy yàlla dëgg rek mooy dëgg te nag loolu ñëpp la moo tax ñuy tëkkale yàlla ak doomu aadama seen xel moo sori yàlla du moroom doomu aadama bii nga gëm bëgg ko bu ko dëkkaleeg yàlla bàyyi ko mu gudd fan bis bu nekk boo ñëwoon ñu lay bàyyi mu lay recevoir bis a ngi ñëw boo ñëwee moo tax gis nga kilifa diine yi ku dee kenn du xaar kenn bu ñu deewee duñ ko yëgal nit ñi bu ñu dee duñ ko yëgal day gis mu dee rek ñetti minutes ñu gaaw gas doog wax dañuy dee nag wala ñooñu ne ñu ngi leen suuf gars yi nekk di yu di wër ak loolu am benn njëriñ yàlla rek mooy yàlla loolu la yàlla bëgg a jàngal borom bi tabaraka wa taala mu ne su fekkee li ngeen di wax dëgg la yéena moom alaxira bëgg leen dee ku ku moom alaxira laa xayra lahu fi biqaayihi fi dunia ku xam ne alaxira am na fa cër am na fa xéewal kooku amul importance muy toog àdduna lu fi def ma ni sénégalais yi nga xam ne Europe xam nañ ne am nañ fa dara buñ fi toog wala Senghor bi ñu ko follee Sénégal fu mu dem Abdou Diouf bi ngeen ko follee fu mu dem seen góor gi bi ngeen ko follee fu la jëm nga xam ne ne fi amuñu fi dara foofu moo gën a neex fi waay wala moo tax yi ngeen di jël gaal yi di bugg dee di rey seen bopp mu nga kon bu fekkee nit am na xam na ne alaaxira moo gën ci moom am na fa lu mu fa am billaahi wallaahi du bëgg toog adduna saxaaba yi ñoom ak yeneen yeeg ñu baax ñi dañoo xamoon ne alaaxira ñoom am nañ fa dara moo tax ñoom bëgguñu woon toog adduna ndeysaan yéen saa salaam dañ ko fekk mu toog mu tëdd ci benn basang basang bu wokkoon Omar bi Omar duggee yonent bi jóg di ko nuyu ne ko nii loxo Omar gis faari yonent bi mi ngi dereetal ndax fi mu tëddoon ni mu woowee ñun tey sénégalais bi gën a dee ci lu wow li muy tëdd mu nga tëdd mergàddu xam ngeen mergàddu ah sénégalais bi gën a dee laa wax ci li muy fanaan mu ngi tëdd mergàddu lii sax bas moketu jàkk yi sax boo ci tëddee sa yaram du dereetal ah yeneen bi nag ndeysaan moom amul woon sax loolu xam nga lu mu tëddoon basang bu tudd tagar bi mu nuyoo Umar Omar gis faari yonent bi mu ngi dereeta Omar daan ne yonent bi doo bàyyi ma woo ma woote saxaaba yépp ñëw ku nekk indi mbàjjam mi muy sàngoo ñu lemal la ko ba mu ba mu nooy nga ciy tëdd ndax sa yaram bi dootul dereetal xanaa gisoo Kisra ab yéeféer la ci mu ngi fanaan ci ay mat la yu nooy xanaa gisoo Qaysar yéeféer la ci mu ngi tëdd ci ay mat la yu nooy xam nga yonent bi lan la wax Omar maali wali dunia moo Omar lan moo ma booleeg àdduna man man ñëw ma fi pour àdduna de maana illa ka raakibin istazalla taxta sajara summa qaama waxtarakaha maa ngi mel ne benn waaye bu doon dox ba sonn daal di siit benn garab bu féex mu ñëw noppalu toog di noppalu est-ce que waa loolu bu toogee ba yëg ne coonoom dem na buy buy dem day buddi garab gi yóbbaale wala day dagg kër gi yóbbaale ñaar yi ban la ci def du ci def benn day jóg rek dem yoonam yonent bi ne noonu laa mel ci àdduna man damaa ñëw ci àdduna mel ne rek gis garab toog di noppalu damay jóg moo tax ut fi woon dara xoolal ñun ñi nga xam ne nag dañoo ñëw àdduna def ko kër da ngay gis waa ji di xeex ndax ay kër di xeex te li gën a ruslu xoolal tey am na ci suñuy kilifa diine yoo xam ne du ñu gis terrain du ñu gis suuf dañuy xëccoo bay xëccoo ay liir ay terrain nga dégg cité koñ boo dem ñu ne la moo moom bayal bi moo moom immeuble bi moo moom parking bi loolu yëpp àdduna la rek àdduna yonent bi moom lan laa moon àdduna jàkk jàkk jooju moo fi des ba léegi jàkk dem leen Médine ngeen xool yonent bi ngeen laajte lan la fi moom pourtant yonent bi bu bëggoon suuf sépp yàlla jox ko ah ba mu bindee Musaylimatul Kazzab lettre Musaylimatul Kazzab dafa bind yonent bi lettre daan ne innahum min Musaylimatul Kazzab nabiyallah ila muhammad rasulullah faalam anna al ard qismayni qismun laka wa qismun lii yow maa ngi man musaylimatul kazab musaylima musaylima rek la bind man musaylima yonent yàlla bi maa ngi bind moom dafa jékki-jékki mu ne yonent la yàllaa ko yónni mu commencé di woote ñu bëri topp ko ci jamono yonent bi ñu ñëw wax ko yonent bi saa salam ne ko am na ku murtad ku tudd musaylima mu ngi woote mu daal di bind yonent bi lettre ne ko lettre bi mi ngi jóge ci musaylima yonent yàlla jëm ci muhammad yonent yàlla maa ngi lay yëgal ne suuf si kat ñaari xaaj la benn parti bi yaa ko moom beneen parti bi maa ko moom yonent bi bind ko lettre ne ko min muhammad rasulillah ila musaylimatil kazzab lettre baa ngi bàyyi ko ci muhammad yonent yàlla jëm ci musaylima fenkat bi faalam anna al arda lillah moom lan la waxoon sànq suuf si ñaari xaaj la yonent bi ne ko suuf si yàllaa ko moom moo moo ko moom ma ko anna al arda lillah yurisuha man yasa wala aqibatu lil muttaqin gis ngeen ñun sunu mbir yëpp mooy àdduna comme yahud yi rek comme yahud yi àdduna rek koo fi gis lu tax muy daw àdduna la kenn daw fi ngir dugg aljanna est-ce que ñi doon jël gaal yi ajjanaa taxoon ñi la nga am yooyu ajjanaa tax ah dama leen di laaj ñi doon jël gaal yi naan barsaq wala barza barsa wala barsaq wala lii rek barsa yenn saa nga dégg benn waaye mu ne alal ju bari wala bàmmeel bu sori yenn saa nga dégg ko loolu alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax alal est-ce que dégg ngeen kenn naan dugg aljanna rek wala bàmmeel bu sori est-ce que dégg ngeen kenn naan doo ko dégg mukk parce que aljanna yitteelul nit ñi nit ñi àdduna moo leen yitteel àdduna rek yàlla moo nu xam bal tuksiruuna alxayaata addunia ñun ñëpp jàng nañu aaya boobu bal tuksiruuna alxayaata addunia yàlla nee na li wër tey mbir ñu ne ah mu ne àdduna rek ngeen gëm kallaa bal tuxibuuna al aajila wa tazaruuna al axira yéen àdduna rek ngeen bëgg bàyyi àllaaxira yàlla moo nu xam moo tax yàlla buy wax ak ñun rek ku nekk da nga ciy yëg sa bopp. borom bi ne subhaanahu wa taala walan yatamannawnahu abadan du ñu bëgg dee mukk ci kaw suuf jamais ñu bëgg dee abadan ba mukk ab yahud ab yéeféer ku jaamul yàlla walan yatamannawnahu abadan doo bëgg dee mukk mooy ñun ñi ay boo fi dañoo ne nit fajar ba nuyu ko ne ko yàlla nga dee mu ne la wax dégguma nga ne ko yàlla na nga dee kooku say day jël kër day da koy jaral mu dem ut big rouge daal di ubbi agendaam ba gis sa numéro téléphone ak sa sa tur mu daal di ciy def big rouge daal di koy xoos daal lay boole ci noonu mi bay ma xii te pourtant fi mu ne kuñ ne yàlla na ma dugg àjjana lay wax amin est-ce que li mën a dugg àjjana te deew waaw ok dee du gàcce dee victoire la ci bu sànkul dundam dee du gàcce victoire la ci bu sànkul dundam ku fayewul dundam nii simbewoo sa dund xumbaloo ko fuuraloo ko bërewoo ko musigoo ko raboo ko kiris karasoo ko ceg daawunoo ko sa dund gi fowoo ci dara danga kaa jaamu yàlla ba mu jeex yow dee victoire la ci yow da nga am ndam yow doo dajeeg yàlla mu ngi sëgg yow bis bi ngay dajeeg yàlla da ngay siggi ndeysaan moo tax ku jaamul yàlla du bëgg dee yàlla mu ne walañ yatamannawnahu abadan du ñu bëgg dee mukk waaw yàlla lu tax ñii du ñu bëgg dee mu ne bi ma qaddamat ay diihib da xam nañ seen loxo lu mu jiital xam nañ lu ñu def moo tax du ñu bëgg dee bi ma qaddamat ay diihib xam nañ li ñu def yi ñu toog fii ku nekk xam nga li nga def balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqaa ma'aazira waaw c'est que di di lay mooy walaw alqaa ma'aazira donte da nga bëgg indi bi nga defee lii ba pare nag xam ne def nga crime nag nga bëgg nag aar sa bopp walaw alqaa ma'aazira di ko layal xam nga sa bopp yàlla mu ne kenn kenn ci yéen du bëgg dee yàlla lu tax duñu bëgg dee mu ne bi ma qaddamat aydihim ndax seeni loxo yi lu ñu def dañoo dugal seeni loxo ci lu mu war ta dugg dañoo dox ci seeni tànk fu ñu jë waroon warul woon a dem dañoo déglu ci nopp yi lu ñu warul woon déglu xool ci bëri lu ñu warul woon xool biir yi lekk lu ñu war ta lekk moo tax du ñu bëgg dee bi ma qaddamat aydihim ah loolu la ndeysaan démb ci guddi dañ may nettali benn waay boo xam ne da daan da daan lebale métier yëpp da doon lebale ku muy lebal 10 000 xam nga lu mu lay wax 15 000 ngay fay ku muy lebal 15 000 ne la 20 000 ngay fay mu nekk ci loolu nekk ci loolu ndeysaan ba dee dikkal ko muy sukkuraat xam nga lu mu doon wax ay alal moo ko bon ay alal moo ko bon ay alal ak a bon noonu la doon def ba dee lu tax lu tax bëggul dee c'est parce que xam na li mu def ku def lu bon doo bëgg dee jamais waaw billaahi billaahi malakal moo ci bu doon ñëw naan kenn ku nekk mu ne la kañ nga bëgg dee kenn ci ñun tey bu ko malakal moo ci bàyyi woon ba mu ne allahu akbar te day julli malaaka daal di koy dee ne ko boo sëlmalee dama lay yóbbu julli googu kenn du ko sëlma ràkka yooyu di nga gis koo xam ne mokkalu loon lu dul faatiha falaxi ak naasi wala lixlaas dina tari ñetti saar yëpp ci ràkk bi te fu naa kenn kenn kenn du def loolu nii fi mu nekk nii ñun bu ñuy julli qul allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad qul huwa ahad allahu akbar benn subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim sami allah liman hamid rabbana allahu akbar assalaamu aleykum faxasu dem sa yoon waaye bu la malakal mawti deewoon wala incha allah yàlla ma yónni boo sëlmalee rek lay yónni allahu akbar pourtant ndeysaan loolu la ñu yonti wax ne salli salaata mutawaddi gis nga booy julli julli julli kuy tàggatoo jullil comme julli gi mooy sa dernier julli ku mu wóoroon ne julli gi mooy sa dernier julli da nga koy yàq wala da nga koy rafetal ah salli salaata mutawaddi julli julli kuy tàggatoo wala ñun suñu julli yi ñoom ci naafile yi am na jàkk yoo xam ne kul wallaahu ñaata yoon lañ koy tari fukki yoon mais bul fekkee fi ñu koy jàngale kul wallaahu sama nameer ko fanaar kul wallaahu wana zaral ko fanaar kul wallaahu wana la zaral ko fanaar benn kul wallaahu rek moo ci leer li ci des yëpp dara dootu ci leer waaw même bu fekkee loolu sax da nga koy def lu tax duñ ko wax aaya par aaya qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad xamul tax xamul tax buñ ko waxee noonu ràkk yi day gudd loolu moo tax te bëgguñu ràkk yi gudd bëgg ràkk yu gàtt yu gàtt nit ñi bëgguñu yàgg ak yàlla fi mu nekk nii ñun ñu toog fi yëpp boo bëggoon takk benn xale bu jigéen bu rafet xees paj njool ba ci kaw ba di weex tàll kawar gi gudd ñuul kukk mu ne damay ndogu si ñëw bu bëggee dem da nga naan waaye mu toog bàyyi ma dem yow toogal dinaa la jox paas taxi da ngay bëgg mu toog foofu ba kañ yéen saa gis benn waaye sax bu dem seeti xale bu jigéen bi mel noonu nañ ataaya ñu ataaya ba pare xam nga dafa war a ñibbi ataaya bi jeex na ñetti kaas la lawal ñëw na deuxième ñëw na nañ meew waay ñu ñu meew ba pare mu ne nañ doxantu ji jëndi dibi waay lii yëpp pour lan xamul tax bëggoo ñibbi rek léegi lu tax ma bëgg a yàgg ak kii bëggoo yàgg ak yàlla lu tax ñun bëgguñu yàgg ak yàlla ah mbokk yi kenn ci ñun bëggul yàgg ak yàlla lan lañ yàlla def bëgguñu yàgg ak moom xam nga lu tax bi ma qaddamat aydihim nga dafa am looxoor yu ñu dugg bis bu nu demee ci yàlla daf ñuy enquête te day feeñ parce que lépp ahsaahu laahu wa nasuhu bind naa ko yéen fàtte ngeen ko lépp yàlla bind na ko bu leen fàtte ne yéen a ngeen ñaar kiraaman yaalamuun ngeen ñaar yéen bind moo tax kenn ci ñun bëggul dem yegg diggul dem ci yàlla beneen boo xam ne da tax na bëgguñoo dee mooy wallahu alimum bizalimin yàlla nee na xam naa tooñkat yi wallahu yàlla alimun ku xam la bizalimina tooñkat yi est-ce que kii tooñ kon bëgg naa dem ci yàlla wallahu yàlla bi zaalimina ci tooñkat yi alimun ku leen xam la chaque jour ci tafsir yi dinaa leen di wax de sayid xawa rahimahullah nee na bu ngeen di jàng alxuraan na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee aaya 94 bi fan la jeexee yàlla nee na xam naa tooñkat yi wallahu alimun bi zaalimin soo déggee lii yow fekk tooñkat nga nooy def tooñ ñetti façon la ñetti façon tooñ moo am tooñ sa boroom tooñ sa bopp tooñ sa moroom tooñ sa boroom yaa ak yàlla la yàlla nga tooñ tooñ sa bopp yaa ak sa bopp la tooñ sa moroom yaa ak sa moroom la bi nga tooñ sa moroom yàlla mënu la ko baal sa moroom rek loolu moo tax yowmal qiyaam boo nee tëll gis sa yaay da ngay daw boo nee tëll gis sa papa da ngay daw yowma yafirul mar'u min axi ñan ngay daw wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi lu tax yàlla mu ne li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni ku nekk da nga am loola doy moo tax ngay daw ndax da ngay bañ sa yaay ñëw poñe la ne la fay ma àqu njuréel gi fay ma àqu njuréel gi moo tax nga daw doo bëgg doo bëgg mukk sa yaay ne la fay ma li ma la ëmboon sa papa ñëw ne la fay ma li ma la doon dundal maa la jur fay ma léegi nag mbokk yi ku gis papaam daw gis yaayam daw est-ce que xel nangu na nga gis keneen taxaw kan moo gën a jege nit sa ndey ak sa baay ku daw ndeyam ak baayam nag ana kan keneen mooy jël responsabilité ne day wax yow hmm? kan lii yàlla rek moo ko ñemee wax nit day daw ndeyam di daw baayam ñu ne yàlla tax nit ñi di dawante mu ne li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni ku ne dangaa am loola doy olof yi nee nañ sikkim yi bu ñuy lakkandoo ku nekk booy dal ah sikkim yëpp di tàkk balaa ngay dew di utu ndox di fay yi sikkimu jàmbur day fekk bii fay nga ko ba pare doog a ne di xool gaa yi koo gis muy tàkk waaw ñëpp am problème yàlla nee na ñëpp am problème ñëpp li kulli imri'in minhum yawma izin sha'nun ku nekk am nga problème booy rek la ba ci yonent yi gaa yi dañuy daw dem ci nuux mu ne man dama am problème bu rëy moom laay réglé tey taluma kenn sori leen nuux luy sa problème mu ne maa ne woon rabbi la tazar alal ard min al kafirina dayyaaran maa ne woon yàlla suuf si bul fi bàyyi kenn reyal ñëpp walla loolu laay réglé nu ñuy def mais dem leen ci Ibrahima ba xam ñu ñëw ne Ibrahima ne man maa fenoon benn fen fen boobu laay réglé tey Ibrahima ban fen nga fenoon mu ne maa daaneeloon yàlla yi jël jaasi ji wékk ko ci yàlla bu mag bi ñu ne ku def lii mu ne bal faalahu kabiruhum haza yàlla ju ngand ji moo ko def mu ne fen boobu ma fenoon moom laay jéem a régler tey Ibrahima nu ñuy def mu ne dem leen ci Moussa ba xam ñu seen Moussa gars yi Moussa seen mbooloo mi di ñëw mu ne bu leen yegg si man damaa reyoon nit kenn wax ak man waaw kon Moussa nu ñuy def mu ne seet leen Issa ba xam Issa seen gars yi mu ne hé fu ngeen jëm ñu ne ko mu ne man man mi ñu doon wax yàlla laa sama yaay yàlla la man loolu laay réglé lu ñuy def mu ne dem leen ci Muhammad ba xam mu jóg taxaw ne ana laha maa ko moom maa ko moom maa moom mbir mi la maa ko moom lu seen problème ñu ne ko ñaanal yàlla mu atte jaam ñi taxawaay bi métti na sonn nañ mu ñëw sujjóot ci kanamu yàlla yàlla mu ne ko irfa raasaka tey du bi si julli sigil irfa raasaka yëkkati sa bopp wasal tuta wasfa tushaffa laajal ñu jox la rammul ñu jox la nga rammul ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yàlla nee na wallahu yàlla alimun ko xam la bi zalimina tooñkat yi bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi yàlla tooñ la ko tuddee tooñ inna shirka la zulmun azim yàlla leen xam naa tooñkat yi kon dañu góorgóorlu balaa ñuy bokk ci tooñkat yi bokkaale tooñ la te tooñkat yi yàlla leen xàmme naa leen xam naa leen fu ñu dugg dinaa leen nuqarti génn leen wa sa yaalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibuun yàlla ma ne tooñkat yi xam naa leen fu ñu dugg dinaa leen dugg génn leen te tooñ yàlla daf kaa araamal yàlla nee na ci xadisul qudsi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazaalamu yenent bi nee na yàlla wax na ci xadisul qudsi man yàlla damaa araamal tooñ ci sama bopp man yàlla maa fi ëpp doole mais du ma tooñ dañu nekk ci weeru koor nga gis kuy ndékki di añ su ngeen jaaree nii rek miiru église balaa muy jeex am na kuy jaay foofu ndékki xaw ma ndax day jaay na de waaye démb dafa mel ni gis naa ko fi mi ngi jaay jërëjëf su ngeen continuer am na benn kër gu ngan na gu ngeen di jaakaarloo ngeen continuer am na restaurant yu nekk foofu gaa yaa ngi jaay añ di jaay di jaay ndékki ñoo ñëpp yàlla toog di leen xool ndeysaan gis ñu ngi jaay ndégg yàlla mu leen dara te ñu ngi tooñ yàlla te yàlla mënoon na ne foofu ngay jaay rek mu ubbi suuf si suuf si xar nga dugg mu képp ko am na ñu ko fi doon def yàlla noonu la leen def waaye xoolal yàlla daf mënoon da nga koy tooñ mu toog di la xool te moo la ëpp doole te tooñu la yow ma da mu ne man damaa araamal tooñ wa ma rabbuka bi zallaamin lil abid yàlla nee na man du ma tooñ jaam ñi yàlla du tooñ jaam ñi jaam ñi dañoo yoreel yàlla aq yàlla yoreel leen aq xaqullahi ala al ibad wa xaqul ibad lan mooy xaqullahi ala al ibad lan mooy àq yàlla ci jaam yi mooy an yaabuduhu wala yushriku bihi shay nañ ko jaamu buñ ko bokkaale lan mooy àqi jaam ñi ci yàlla allah yuadiba man la yushriku bihi shay ku ko bokkaale wul du la mbugal yàlla du tooñ yàlla du sakk jëf yàlla nee na du ma tooñ man tooñ dama ko araamal ci sama bopp inni xaramtu zulma ala nafsi ba pare yéen wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu ma def ko ci yéen muy lu araam bu leen tooñante yàlla bëggul tooñ yonente bi nee na iyaakum wa zulma mooy tandiku leen tooñ fa inna zulma zulumaatun yowmal qiyaama tooñ ay lëndëm la yowmal qiyaama léegi nag nañ xool suñu dund gi ndax ñun ñu ngi tooñante wala tooñante wuñu ban dund la ñuy dund dund man sa morom duma day dégg ñu ne ku man sa morom duma ah loolu metti na de mbokk yi ku mën sa morom rek amul yërmande waaye duma comme dund géej dund géej lan mooy dund géej mooy dund man sa morom duma géej jën bu ëpp sa morom rek loo koy def lekk àll bi tamit noonu la àll bi suñ demee ci àll bi rab yi lu ñuy dund man sa morom duma ku mën lekk sa morom loolu nag loolu nag jigul ay nit nit ñi moom yàlla daf leen ni bu kenn tooñ kenn tey nag ñu sànni fële li yàlla wax di def lu neex léeg-léeg nga dégg benn waaye mu ne kii dinaa la dóor yow te sama loxo du la laal yow di nga xam ne du ma sa morom yow yow di nga xam ne yow di fëgg dënn ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti nit a ngi nii yàlla day nangu seen ñaan seen ñaan yàlla du ko dellu ku war ba ngoon bay dog ñaari wu ñaari way jur ak ku ñu tooñ ku ñu tooñ soo ñaanee yàlla yàlla may la ku ñu tooñ boo tooñee nit dama tëdd dina la mu dem jàpp julli ñaar raak sujjóot boo yàlla am nga problème yow mi tooñ moo tax yonent bi ne mooy tunduk leen ittaqu daawatal mazlumi fa laysa baynahu wa bayna allahi hijab ku ñu tooñ digganteem ñaanam digganteem ak yàlla amul kiiraay su ne yaa rab yaa rab yàlla wuy ko dafa dafa am benn borom xam bu tudd Ahmed Hamid Abdoul Hamid Kiski dafa am benn président bu ko tooñoon mu daal koy bind lettre bi mu tooñee génn ci télé bi xas boroom xam-xam bi wax ko lu ko neex boroom xam-xam bi daal di koy bind lettre ndeysaan ne ko man de dama am benn problème ko li sa problème mu ne dëkk bi yaa ko jiite su fekkonte ne dafa am ku ma tooñ yow laa koy boole ndax yow yaa jiite dëkk bi bu fekkoon ne dafa am ku ma tooñ yow laa koy booleel yow mais comme yow yaa ma tooñ nag yow yaa supérieur ñëpp yaa ma tooñ boole la ak yàlla waa ji daal di tiit yónnee ko ay nit pour négocier mu baal ko bi gars yi ñëwee mu ne leen lettre bi envoyé naa ko biig ci guddi damaa fanaane naa fi la dem na mënatuma ci dara ñaan naa la yàlla dem nekku ci waa ji xëy dem défilé militaire ñu roose ko ay bal ba biir bi fees mu dee tooñ baaxul woykat bi nee na laa taslimanna iza ma kunta muqtadiran fa zulmu taatika uqbaahu bin nadami tanaamu aynaka wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lam tanami bul tooñ de loo am doole am doole bul tooñ même gis nga xale bu ndaw bi bul ko tooñ dafa am benn buur dafa am doom mu jox doom ji benn sëriñ mu ne ko jàngalal ma xale bi sëriñ bi di jàngal xale yi ba caag rek mu woo xale bi xale bi ñëw rek mu xiiral loxo bi ba loxo bi xiir rek mu pes ko ba juróomi baaraam yi manqué xale bi ne ko lu xew mu ne ko maa tey xale bi daal di noppi xale bi màgg papaam dee xale bi nekk buur bis bi ñu ko falee buur bi mu ne dem leen ngeen indi ma sama sëriñ ki ma doon jàngal gars yi ne fu mu nekk mu ne xaw ma ko fu ngeen ko mënta gis ne indil leen ma ko te bu ngeen ko indi bu mu laal suuf na ngeen ko yëkkati ba ci kaw indi ko ñu wër sëriñ bi def déclaration lu xarte ji sëriñ bi ci àll bu indi ko bi sëriñ bi ñëwee toog mu toog mu ne sëriñ xamme nga ma sëriñ ah xamme naa la kay maa la jàngal mu ne waa sëriñ fa am lu ma la bëgg laaj sëriñ bi ne ko lan la mu ne ko yaa ngi fàttali ko benn bis pesoon nga ma benn pes boo xam ne toog naa semaine sama nopp bi déggul dégguma sama nopp bi dafa tëxoon une semaine sëriñ bi ne ko wax mu ne waa sëriñ ñu taxoon nga pes ma lan la dama bëgg rek nga wax ma tey lan laa defoon ba nga pes ma na nga wax li ma def nag moo tax gis nga tooñ kenn du ko fàtti koo tooñ même xale bu ndaw bi même boo dee baayam du ko fàtti tooñ baaxul kenn du ko fàtti loo def nit ëpp ko doole def ko ko mu ngi ci archive yi mu denc bis bu la ëppee doole dina la ko wan même boo fekkee sa doom la yaa ko jur sëriñ bi ne ko dama la bëggoon jàngal àdduna mu ne jàngal àdduna xoola bu fi génn ay question di waaraate waxa rek loolu laa defoon noo may jàngalee àdduna mu ne damaa xamoon ne sa bàyyi day dee bu dee yaa fi toog ma lay wan tooñ nu mu mel bu boo toogee ci xalifa gi nga bañ a tooñ jaamu yàlla yi ndax ba ma la tooñee ba léegi yaa ngi fàtte woon xale bi ne tekk nga ci ak mu ne wallaay wax nga dëgg mu ne waaw dama la bëggoon jàngal àdduna pour boo toogee nga bañ a tooñ jaamu yàlla yi ndax tooñ kenn du ko fàtte mu ne wallaay wax nga ay boo waxul woon lii tey ah gis nga tooñ baaxul te ñun dañuy tooñ rek da ngay gis ku dëkk ak nit di ko tooñ da ngay gis ku takk ja- jabar jigéen di ko tooñ da ngay gis ku am ay doom di leen tooñ da ngay gis ku nekk ak baayam di ko tooñ ku nekk ak yaayam di ko tooñ ku nekk ak ay mbokkam di ko leen di leen tooñ même jabar ji nga takk amoo droit tooñ ko fa may àq jox koy àqam jëkkër ji nga am bul ko tooñ ndeysaan jox ko axam seen bàyyi jox leen ko axam bàyyi na dox doomi ax yi ku nekk faati kulla zi xaqin xaqahu kenn ku nekk da nga yoral ki nga dundandool àq dafa am ay àq jox ko axam mais fii gis kenn ko xam moom day jalgati rek moom ay axam lay laaj mais du jox kenn axam tooñ baaxul bul tooñ de la taslimanna bul tooñ isa ma kunta muqtadiran loo am doole am doole bul tooñ ndax tooñ résultat bi baaxul dangay dem tooñ tëdd di nelaw ki nga tooñ jàkkaarloog yàlla di ñaan te yàlla moom du neenal ñaanu aji ku ñu tooñ yow mal xiyaam yàlla dana ana ñu doon tooñ mu ne ñu ne ñu ngi nii mun a jege si leen ana ñu doon tooñ mu ne ñu ngi nii mun a jege si leen tey ma nangu aq yi delloo leen ko kon yàlla nee na wallahu yàlla alimun ku xam la bi zaalimiina tooñkat yi kon tooñkat yi bu fekkee ñun dañuy tooñ nañu bàyyi xel yàlla nee na xam na tooñkat yi kon lan moom war ñu bàyyi tooñ buur bi bàyyi na loolu ba tey mu ngi ñuy wax jikko yahuud yi pour ñu moytandi ko jikko yahuud yi balaa ñuy nekk ay yahuud yàlla ne wala tajidannahum wa waaw bi waawul xasam la wala tajidannahum giñ naa ci sama màggaay danga leen a fekk ñoom yahud yi aharasan naas ñoo gën a xër ci nit ñi ala xayaatin ci dund ñoo gën a xër ci nit ñi dund di nga fekk yahud yi ñu ñoo xam ne dund rek lañ bëgg dund kese wala tajidanna asad annaas ahras annaas ala xayaat ak ñoo bëgg dund ñoom ak ñan mu ne wa min allazina ashraku ak way bokkaalekat yi bokkaalekat du bëgg dee ku jaamuwul yàlla du bëgg dee lu tax ndax xam nga ne boo dee dem ci yàlla rek safara nga jëm direct da doo bëgg dee ma ne yàlla mu ne wala tajidannahum dana leen fekk ahrasa naas ñoo gën a xër ci nit ñi ala hayaatin ci dund wa min allazina ak gaa yi nga xam ne ashraku ay bokkaalekat lañ waaw kulul hayaat mbooleem dund gi da ngay gis ne ñoom dañoo bëgg dund ndeysaan te bëgg dund moom jarul doomu aadama di ci sonn bëgg dund jarul doomu aadama di ci rey boppam loo xër xër xër xër ci dund dee dina la dëkk dëkk loo bëgg bëgg dund ndax dund gi xam ngeen dund nu mu mel dund mu ngi mel ne benn bërigo bu ñu encastré ñaari côté yi ci suuf ak ci kaw mu ngi mel ne bërigo diwlin bu fees ñaari côté yëpp dañ koy dañ koy tëj ñu bënn ci digg bi daal ci génne benn buum bu sew ñu ne la xëccal buum gi ngay dox di xëcc buum gi di dem yow mi xëcc buum gi di dem est-ce que xam nga lan moo des ci biir bërigo bi xam nga buum gi kañ lay kañ lay jeex ci bërigo bi daal di génn ci bërigo bi xam nga noonu la dund mel yow yaa ngi xëcc di dem rek sa dund gi suñu dund gi yëpp loolu la ci ñun ñi ñëpp kenn xamul kañ ngay dee mooy buum gi kañ lay jeex ci biir bërigo bi da ngay xëcc rek di dem waaye kañ ngay dee xamuloo ko loo xër xër xër xër ci bëgg dund bis dina ñëw nga dee kon li am solo rek mooy sa dund gi ngay dund nga dund ci lu leer nga dund lu leer nga dund lu wóor nga dund dëgg gis nga tey bokk na ñun Sénégal yi lu ñu sonal mooy ñàkk dund dëgg loolu rek moo ñu sonal islam bu leer bu ñu war a dund muy dëgg moom moo fi amul ku nekk ci lu la neex nga nekk wala mbooloo moo gis ñu nekk ci lu leen neex te loolu amul benn njëriñ man ci mbooloo sàngam laa bokk loolu amul njëriñ fexeel nga dund dëkk am am solo yàlla xamul mbooloo am na ñu bokkoon ak yonent yàlla Muhammad mbooloo te ñu nga safara tey donte mënoo leen tus am na ñu bokkoon ak Aboubacar mbooloo ñu ngi safara am na ñu bokkoon ak Umar mbooloo ñu ngi safara am na ñu bokkoon ak Ousmane ak Ali mbooloo ñu ngi safara kon beneen mbooloo boo bokk jéemal rek nekk ci dëgg bis boo nekkee ci dëgg jarul ngay ragal jarul ngay tiit ndax dëgg moom du changé benn dëgg kese moo am muy dëggu yàlla yàlla nee na wala tajidannahum danga leen fekk ñoom yahud yi ak ñu mel ni ñoom ahrasa naas ñoo gën a xër ci nit ñi ñoo gën a bëgg ala xayaatin ci dund tey jii gis nga aaya yu mel nii daf ñu war a wan ne alxuraan dëgg la yàlla moo ko wax yahud yaa ngi nii sunu wet bëgguñu dee gis nga Israël tey dañ koo protéger ak benn miir boo xam ne miir bi boo ci doree bomb sax miir bi du bouger pour lan ngir ragal waa Hamas bëtt ko ñëw faagaagal leen waxuma la loolu waaye duñu nelaw ndax lan ndax aar seen bopp bëgg a dund benn soldaaru israélien Israël bu ñu pertee benn soldat ñeme nañoo bombardé Sénégal yépp pour waa Sénégal jox leen soldat boobu benn nit jaral na leen rey ñëpp ndax benn nit ndax ñoom bëgguñu kenn dee ñoom ñooy armée bu nga xam ne ci àdduna chaque jour bu ñuy génn dañu bëgg a yóbbu nombre nombre boobu ne dellusiwaat bëgguñu ñàkk benn nit islam nag moom soldats yi bu ñuy génn kenn ku ci nekk da ngay def sa testament doo bëgg a ñibbi ci islam yonent bi saa salaam dafa ne jullit bu mu xëy suba ba ngoon deful testament am na ñu loolu duñ ko def dafa bokk ci sunna nga bind sa testament fii ak ngoon gi boo fi deewee lan lañ war a def sa alal nit ki warul warul warul di dund fekk wasiyaam nekkul ci valisam mu teg ko jàng leen loolu sunna bind sa wasiya sunna la su ma deewee lii laa bëgg su ma deewee lii laa bëgg su ma deewee nañ def lii ba mu des nag lu bon su ma deewee nañ ma tëggal soirée ah wasiya boobu kenn war ko def waaye su ma deewee na ma diw jullee na ma diw sang diw yoreel na ma bor diw yoreel naa ko nangam bi nangam la loolu la ab jullit war a def yàlla mu ne du yahudi rek ñoo bëgg a dund de wa minal lazina gaa yi nga xam ne ashraku ay bokkaalekat lañ ñi takk béjjén yi daa ñu takk béjjén bëgg a dund oto yi ñuy takk ay béjjén ak ay gàllaaj lu tax borom di def loolu bëgg a dund ñi takk ay weñ ay lam seen loxo yi pourtant ñu def ko bëgg a dund koo gis muy bokkaale dara taxul muy bokkaale lu dund bu ko dara dal bu ma dara dal tey li tax bu xaaba yi réussir Sénégal jabarkat yi lu tax ñu am fi doole c'est parce que nit ñi dañoo gëm dañoo gëm xërëm sénégalais yi xërëm dafa bokk ci seen dund da ngay dégg ñu ne Dakar ki ko gouverner nu mu tudd lëg daawu mbay ñu ne Kaolack kan moo fa nekk mboose ah ku nekk tënge maam kumba làmba ku nekk gore kumba kastel moom sax lañ tuddee salo bi maanaam dëkk boo dem am na jinne bu fa nekk waaw balaa ñuy def dara foog ñu tàggu jinne bi yéen ngi léegi ne Dakar dañ koy ñaanal ñaanu Dakar yi jël ay nag yóbbu leen ci géej gi tëmbal leen ñu dem am na benn imam bu ma mës a gis mu def ko ba mu dee man ji julleetuma ginnaawam di ñaanal Dakar jël ay nag nag dem ba géej rendi ko ci biir géej gi pour lan pour lan ne dañuy ñaan dañuy ñaanal Dakar ku moom Dakar ah déedéet Dakar kay yéen yàlla moom ana yàlla lu sax ñu dem ba ci géej gi di rendi ay nag kon keneen dafa am ku moom Dakar ku dul yàlla chaque jour am loolu année bu nekk la ñu jël ay nag dugal ci géej gi rendi ba pare leen ci ruslu ne dañuy wàcce ay kaamil dañuy wàccee téeméeri kaamil tooñ nañ kaamil de parce que dañuy def kaamil du ko tere te li ñooñu boo leen fekkoon foofu nga leen ay yéeféer ngeen ñoom ñëpp ñu bal te wallahi ay yéeféer lañ saa yooy jëlee benn xar rendi ko tuuroo deret bi yéeféer la saa yoo rendoo benn xar jublul ko sow lu yéeféer saa yoo bokkaale yàlla rek na nga yëg da yow yéeféer nga bis bis boobu bokkaale day génne nit ci lislaam bokkaale day génne nit ci lislaam day yàq sa lislaam complètement mi ngi mel ne nga jàpp ba pare bëgg julli daal di génne ngelaw wala nga saw wala nga dem àll ba wala nga def loo xam ne day yàq njàpp bi boo bëggee julli waat nooy def dafa am luy yàq lislaam loo xam ne borom xam nga ñu ngi ko tuddee nawaaqidul islaam day yàq lislaam soo ko defee rek sa lislaam yàqu na nekkatoo jullit pour nga nekk julit da ngay tuubiwaat te ñun moom la ñuy def ñaanal Dakar ñaanal ay monument ah ñu génne milliards ñu ne nañ ñaanal monument bi ñu dem jënd ay nag rendi ko ci monument bi ba pare tisbaar jot nga bëgg a ñëw jël micro ëllëg di noot koy noddal ñun dañuy nax suñu bopp rek dañuy def ay jëfi yéeféer ba pare bëgg a nekk jullit jullit du bokkaale saa yoo bokkaale génn nga ci lislaam moo tax nga war a xam lan ngay def yàlla mu ne bokkaale kat du bëgg dee wa min allazina ashraku yàlla ñoom lu tax du ñu bëgg dee mu ne yawaddu dana bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu amaru buñ ko dundaloon alfa sanatin junni at kenn ci ñoom doon na bëgg bu ko malaaka doon laaj ñaata at nga bëgg dana naa dund naa dund junni at yawaddu ay yuhibbu dana bëgg ahaduhum kenn ci ñoom ñooñu kenn ci ñoom bokkaalekat yi wala kenn ci ñoom yahud yi kenn ci ñoom ñi bañ a jaamu yàlla danañ bëgg law yu amaru suñ leen doon dundal alfa sanatin junni at waaye amul importance fi mu nekk ni buñ jëloon micro tàmbali fii ñu ne yow ñaata at nga bëgg dund mu ne téeméer après téeméeri at yi ñuy wër noonu jàkk ci kii ne non man ñaar téeméeri at après ñaar téeméeri at yi ba ba ñuy egg ci junni at ba ba ñuy egg ci ñaari junni at ba ba ñuy egg ci man mii di wax ñu ne ma ñaata ma ne man day bëgg naa dund un milliard at après un milliard at bi dee rek walaw ist alfayni ah walaw ist alfa amin wa alfayni baadahu fala budda yowman tadxulul qabr il faut rek doomu aadama dugg bàmmeel yàgg-yàgg rek loo wiiri wiiri rek bàmmeel bi mi ngi lay xaar foog nga dugg bàmmeel rek ak loo mën a def rek di nga dugg bàmmeel des ak loo mën a def rek ak loo mën a am rek ak loo mën a am ak koo mën a nekk ak koo mën a àndal di nga dugg bàmmeel ana yonte yàlla Muhammad mu ngi ci biir bàmmeel yi ana Abu Bakar mu ngi ci bàmmeel yi ana Omar ana Ali ñu ngi ci bàmmeel yi kon keneen ku dul ñoom da nga dugg bàmmeel waaye fexeel bu boo fay dugg rek na nga fa yóbbaale lu wóor olof yi nee nañ buñ la tànqalee ndox mu bees tax buñ jëndee benn siwo bu bees tax ñu defal la ci ndox mu bees tax mu génn ci robinet bi ñu dugal lu ko ci duus bu bees tax ñu indil la serviette bu bees tàq njàmpe bu bees tàq saabu bu bees tàq ñu ne la sangul nga sangu ba pare ñu ni la yëre yu bees tàq nga sol ko fel màtt la yow yaa ko indaale ku dugg biir bàmmeel xam nga nit bu faatoo ban sang lañ koy sang sang bu bees yéen yére lañ koy solal yu bees ban kàmb lañ koy gasal kàmb bu bees mu dugg ci kàmb gi am lu ko fa màtt moo ko fa indaale waaye lépp lu bees la kon la la fay màtt fan la war a jóge yaa ko indaale kon doomu aadama buy dugg bàmmeel na fexe ba bu mu yóbbaale bàkkaar bàkkaar moom saa yoo ko yóbbaalee ci biir bàmmeel du baax c'est ça borom bi tabaraka wa taala mu ne kenn ci ñoom dana bëgg a dund junni at gëmul yàlla du bëgg dee yàlla mu ne bu ngeen dundoon junni at yooyu sax wama huwa déet moom bi mu zahzihi ñu koy soril min al azabi ci safara bu dundoon junni at tamit safara mu ngi koy xaar rek jàngeen ci alquran yàlla mu ne wala yuazibu azabahu wala yusiqu wasaaqahu mbugal mi ñu la war a mbugal wala yuazibu azabahu ahad mbugal mi ñu la war a mbugal yow rek wala yusiqu wasaaqahu ahad yeew biñ la war a yeew yow rek lañ koy yeew duñ ko yeew keneen yàlla du la mere ba sa xarit njëkk laa dee yàlla mu ne yow sa waa ji xaar naa ko ba sonn ñëwul kon yow ñëwal déedéet yàlla du la mere ba sa jabar njëkk laa dee mu ne yow sa jëkkër ji moom rek laa yàkkamti moom comme ñëwagul yow ñëwal déedéet moom kay la jàpp mbugal mi di xaar rek ba saa yu ñëwee moo tax yàlla mu ne yow rek tey yow rek la mu ne wama huwa déet ñoom bi mu zahzihihi ñu leen di soril ah bi mubadihi min al azabi kenn du la soril safara yow rek yow yaa moyoon yàlla yaa bañoon jaamu yàlla yaa bokkaale woon yow rek la ñuy mbugal min al azabi ci mbugal mi an yuammar ndeysaan wa ma huwa bi muzahzihi min al azabi an yuammar mbugal mi la yàlla war a mbugal yow rek la koy mbugal du ko mbugal kenn kudul yow loolu du tere an yuammar loolu tere ñu mbugal la de du la tere dund taamiruhu alfu sana dund gi ñu lay dundal junni at du la tere yàlla mbugal déedéet parce que at yi ci nature bi la la aju rek at yi ci nature sunu bis yi ci lan la aju ci jant bi jant mooy fenk sow ñu ne benn fan su demee une semaine ñetti semaine ñu ne weer su nekkee benn weer ñaari weer mu jeex nekk fukki weer ak ñaar ñu ne at noonu nga koy dundee noonu at yooyu ba mu jeex yàlla ne donte boo ci demee junni ay ñu amara du la tere ñu mbugal la loo ci dundoon même bu dee junni at du tere yàlla mbugal la yàlla mu ne wallaahu yàlla bi ma yaamaluuna ci li ngeen di def basirun ku ko gis la waxoon naa leen sànq sëriñ bi nee na bu ngeen di jàng alxuraan ba aaye jeex bàyyi leen seen bopp bàyyi leen seen xel aaye bi fan la jeexee aaye sànq bi fan la jeexe woon wallahu alimun tooñkat yi xam naa leen aaye bi fan la jeexee yàlla nee na li ngeen di def maa ngi koy gis kon loolu ñun lan lañ ci war a dégg wallahu yàlla basirun ku gis la bi maa yaamaluna li ngeen di def wallahu yàlla bi maa yaamaluna ci li ngeen di def basirun ku ko gis la waaw ku tal na yàlla di la gis kon yow lu la war ah mbokk yi lan moom nu war bu dee yàlla moom nuy gis lu nu war jub rek yaa leen maa ngi lay gis xoolal Ablaye Wade bu ne woon ministre yi maa ngi leen di gisan ñoom ñëpp dañuy normal doom ji baay ji bu ne doom ji maa ngi lay gis doom ji day normal même bu dee deux jours dina ko normal sa patron fi ngay liggéeyee ngay tardé di nekk ci loo neex ba bis muy woola ne la xam nga yow li nga nekkee maa ngi koy gis bis boobu suba si booy xëy ban heure ngay xëy kuy tontu ah fekk 9 heures nga daan ñëw mu ne la yow woola ne la yow xam nga li nga nekk yëpp xam naa ko te yow maa ngi lay gis waaye nag maa ngi lay xaar ba suba bis ba baneen ngay xëy yàlla nee na wallahu bi ma taamaluna basir li ngeen di def maa ngi koy gis léegi nii ñun ñi yëpp ku ci dugg sa rukk loo mën def yàlla nee na maa ngi lay gis kon ku yàlla di gis moo tax yomal xiyaam bàkkaar bi gën a garaaw yàlla di buggal nit xam nga yàlla lu muy wax bu yàlla ne bu la taxawalee ci kanamam danga xoolal sa bàkkaar yi nu mu bëree yow yaa ñàkk jom xoolal fu ma jaar ak yow ci ndox laa la jëlee def la nit ndox ndox mu salte ndox mu doyadi def la nit ndox moomu laa jël gén denc ko ci ruuxu mu jigéen ñi fa jaalnaahu fi qaraarin makin ma def ko ci benn place bu am sécurité suuf di sànni di ci kaw jumaa ji xoolal yàlla ni mu ngi ne taxaw mbokk yi mu ngi noonu ngay dajal mu ngi noonu mbokk yi su yàlla waxee loolu doomu aadama doomu aadama mu ne man yàlla lii defuma ci dara dëgër fit yàlla mu ne doomu aadama yaa ko def doomu aadama mu ne defuma ko yàlla mu ne ko ñu indi seede mu ne kenn duma seede kul sama bopp kenn doyuma yàlla mu ne d'accord naa yow yaay seede sa bopp loxo mu ne ana lil xaraami lamastu li araamoon maa ko laal bët ne ana lil xaraami nazartu li araamoon maa ko doon xool nopp ne ana lil xaraami samitu li araamoon maa ko doon déglu gémmiñ ne ana lil xaraami akaltu li araamoon maa ko doon lekk tànk ne ana lil xaraami masaytu fi araamoon maa ko doon dem malaaka bu nekk ndeyjoor mu ne ana katabtu man maa ko doon bind malaaka bu nekk càmmoñ mu ne ana shahadtu maa ko fekke woon xam ngeen yàlla lu muy wax ana araftu wa shatartu man xamoon naa ko mais dama ko nëbboon rek xamoon naa ko waaye tey laqad istadda ghadabi ala man qalla hayauhu alayya tey sama mer dina nekk ci képp koo xam ne daraa nekkoon ci àdduna ñàkkee ma kersa rus nit ñi loolu mooy lan xam nga tey fii ci àdduna lañu nekk kenn ci ñun du mooy yàlla nit ñi di la gis mooy mooy yàlla nooy def da ngay gis ku bàyyi bu guddi woor ko ngoon bàyyi bu guddi nga luwee taxi dem sali fanaa ne fecc bu bët set nga daal di ñibbisi boo ñëwee xëdd commencé waat woor demaat tafsir woor na ko ba pare delluwaat ah est-ce que yàlla gisu la yàlla mu ne ana araftu xamoon naa ko xamoon naa kii bandi la waaye wa satartu dama ko nëbboon waaye tey laqad istadda ghadabi ala man qalla xayaahu alayya képp ki nga xam ne bi nga nekkee ci àdduna rusoo ma woon nit ñi nga rusoon sama mbugal mi dina metti ci yow foofu la yàlla ne foofu la Abdullah ibn Abbas ne foofu la yàlla naan malaaka yi xuzu jàpp leen ma ko xuzu jàpp leen ko nee na bu yàlla ne jàpp leen ko juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo lay njëkkante juróom-ñaar fukki junni malaaka sabuuna alf malik ñoo lay jiiroo juróom fukk juróom-ñaar fukki junni malaaka fan lañ xëj ci nit baat bi lay won loolu mooy yàlla ne xuzuuhu jàpp leen ko danañ yàlla yërëm moo tax àllaaxira la ñuy xaar lu rëy la ku bañ a perte nag mooy ku ko préparé wallaahu yàlla basirun ku gis la bi maa taamaluuna seeni jëf bi maa yaamaluuna seeni jëf al amal jëf yi jëf yi dañ ko war a setal setal jëf yi na baax man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amal gis nga amal jëfi jëfi na set yàlla bi muy wax ci tabaara bi yadihi lmulku wa ala kulli cheyin qadir xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum aksaru amalana ahsanu a gis nga de waxul aksaru amal na jëf ji bari amul importance moo tax yenn saa yi mbokk yi interpellé ma ne ma yéen naafila yi lu tax defu leen xisib ah defu leen xisib def fukki raak defuñu defuñu ñoo bañ defuñu ko est-ce que force la fan lañ jàng ne dañoo war a naafila hisib fan lañ ko jàngee ban xadis moo ñëw ne bu ngeen di naafila jàng leen hisib ban xadis la defuñu ko ñun ndànk la ñuy def ñun dañuy woote ndànk la ñuy def tuuti la ñuy jàng ruko sujjóot sëlmal tuuti defuñu xisib da ngay gis nit ñi di jullee xisib waxuma baaxul de da ngay gis ku taxaw ba càgg taxawee benn tànk taxaw ba càgg daal di wenglu xam nga kooku léegi teewlootul te julli dafa laaj teewlu dafa laaj xusoo est-ce que ñun dañu ne def leen lu bëri wala dañu ne def leen lu baax yàlla na ne li yabluwakum ayyukum aksaru amalan wala axsanu amalan du aksar ñun ñun quantité quantité amaluñu importance lan moo ñu amal importance quantité ñëw fi di wanewu am ñoo xam dañu ñëw fi di wane ñu dañuy jaay ne dañoo mokkal Qur'an boo sëqatee rek ñu ñu ñu ñuy gaawantu gaaganti lan moo leen di woon loolu buñ la nee buñ la nee jàkka ji dañ ko organiser ilimaan yi ay boy yu ndaw lañ dañ leen jàngal di leen xool ndax mokkal nañ di leen dégluwaale am na ku leen di déglu ñun ñëpp ñu ngi déglu mais am na kuy déglu suñ la waxee loolu nga nekk jullit waroo nangu lool wala fekkee ne yow lu baax rek mën naa nga jóg mais non am ñoo xam fu ñu dem dinañ war ne ñoom jàng nañ ñeenti hadis foog ñu wan nit ñi ne ñoom mokkal nañ Qur'an foog ñu wan nit ñi ne ñoom jàng nañ ay min booni allahi fa tamanni almayt yàlla ñu yàlla jubal sellal lu sellal sellal dafa doy waar léeg-léeg nit génn këram jëm jàkka ja yàlla rek moo tax mu ñëw bi mu ñëw ba dugg ci jàkka ji iblis roof ñëpp toog mu ne ko dóoral ñaari rakka yu garaaw wanal gaa yi ne yaa fi dàq julli iblis duñ bàyyi moo tax bu yeboo chaque jour ngay contrôler surtout jàmm yàlla nii nga ñëw mu bugg la wax waxal allahu akbar bañal bu ko kenn dégg sax bu ko kenn dégg wala mu ne ne neexalal baat waxal ndànk chaque jour bakkan bi lu mu lay wax da ngay opposé ak bakkan bu la nee na ko nit ñi dégg daf ko daf ko ndànk bu ko kenn dégg bu la nee neexal bul ko neexal parce que lim lay wax da lay yàqal day gis nit ku fanaane woor yendoo woor wala mu fanaane naafila fanaane naafila bërsat lim def baax na wala baaxul mu yeewu dem liggéeyi wala dem seeti benn xaritam wala toog ci benn mbooloo rek commencé gëmmintu ah ça va yow yaa ngi gëmmintu de non dama fanaane naafila bi depuis sax bi ma xëyee damaa wooraat teg ci yàqu na naafila ba yàqu na parce que yàlla taxatu suñu jëfi ne yàlla tax yàlla bi muy wax man yàlla maa leen bind nattu leen li yabluwakum ngir ma nattu leen dafa ne ayyukum ana kan ci yéen ahsanu amalan mooy rafetal jëf ji waxul aksar xul na bëri ñun nag tey xam nga lu ñu intéressé gis nga même tafsir quran yi tey boo duggee ci jàkk yi démb maa ngi dégg waa ji am bi ma conférence bi ma demoon barki démb barki démb waa ji mi ngi wax ak ki ma dendal am ku yaakaar ne man lay wax mu ngi naan ko ñun jeexal nañ nisaa yi ñu ngi tafsir bi ñu ngi nisaa yi xoolal Sénégal bu ñuy tafsir Quran dañuy course fi mu nekk nii xam nga jàkka yi lan la ñuy course pour weer wi buy jeex kaamil bi jeex naafile yi tamit noonu la day gis ñoo xam dañuy course kaamil bi jeex na weer wi jeex na moo tax duñ ci jëlee lu dul jeexal ngeen jeexal nañ alhamdulilah jeexal ngeen jeexal nañ loolu dam la ñuy ciy jëlee loolu jëriñ du loolu ndànk la ñuy def jël mbir yi di ko def ndànk julli gi na am teewlu nañ toroxlu nañ ci fàttali jaamu yàlla na rukkoo yi mat sujjóot yi mat njàng mi mat mais parax parax dem duñ ci jëlee lu dul parax parax dara baaxu ci et puis sant ñu fenn nag da ngeen fexe di di naafila kaamil bi muy jeex ci weer bi sant ñu ko kan te ñu ne rek naafila leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam yenn saa yi sax ci ay teewaayam def na naafila ñaari raak moom day xool selon que nit ñi suñu sawaree rek mu guddal rakk yi bu nit ñi sawarul mu daal di koy gàttal dem yonent bi dafa déggoon àdduna dafa déggoon diine yenn saa yi ngi gis ne saan ñuy jàng physique benn jigéen bu boot doom ji jooy taxaw rek te yonent bi bu daan julli mu jàng faatiha mu jeex mu dugg saar mu dégg xale bi jooy mu du ko ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam même bu jëloon xul wàllaa waxat su déggee xale bu jooy day du ko benn imagine bu ñu bàyyee xale bi di jooy yàkka ji kenn dootul teew ñëpp seen xel ci xale bi lay dégg julli gi nekk fa léegi ñun ñoom ñu bëgg a jël hisib nag léegi taxaw di tari tànk yi métti nga waa ji ne nii ba caag mu ne nii ba caag mu daal di toog nga xam nga ne jullee too de balaa caag nañ def lu gàtt rek lépp mat lépp baax ñëpp teewlu ñu dem beneen bi mooy ilimaan buy tari ñun ñëpp ñu bëgg nekk di gàgganti ma jox leen misaal qul huwa allahu ahad lam yalid wa lam yulad ñëpp waxandoo qul huwa allahu ahad lu ci tegu qul huwa allahu ahad lu ci tegu xam ngeen ne allahu samad si kenn mënu koon wax de waaye imaam yaa ngi ne jàkk yëpp daal di riir brrr imaam yi doon xam fan la mu ne teg taxaw da kenn rek wax affaire bi du course du wanewu da kenn rek wax après ñu def mais déedéet danañ yàlla jubal borom bi mu ne wallahu yàlla basirun mu ngi gis bi maa yaamaluna li ngeen di def ku yàlla di gis ta jëf nag war nga ko sellal qul waxal yow muhammad man képp koo xam ne kaana nekk na aduwan di noonu li jibril jibril fa innahu moom yàlla nazzalahu moo ko wàcce ala qalbika ci sa xol bi isnillahi ci ndigalul yàlla ku noonu jibril ndax yàlla moo wàcce alquran ci xolu yonent bi tooñ nga jibril ndax jibril moom du dara dul ndaw lu ñu yónni innahu la qawlu rasulin karim jibril ndaw la rek lu yàlla yónni ku ko mere ku ko noonu tooñ nga ko moom dañ ko yónni rek yàlla nee na maa ko yónni kon man képp koo xam ne kaana nekk na lii aaya bi tirmis yi nee na sababu nuzul bi mu wàcc man kaana aduwan li jibril képp ku noonu jibril ilax ba aaya bi jeex nee na anna al yahud qaalu linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam innahu laysa nabiyun min al anbiyai illa yatihi malakun min al malaika min indi rabbihi birrisalati wa bilwahyi faman saahibuka yahud yi dañoo ñëw ci yonent bi ne ko amul benn yonent lu dul am na malaaka buy ñëw ci moom di ko indil wahyu di ko indil yonent yow yonent bi ban malaaka mooy ñëw ci yow ndeysaan xaala mu ne leen jibril malaaka bu tudd jibril moom la tubaab yi daan gabriel jibril ay façon tur yu bari la jibril am na fu ñu koy waxee jabrail am na ñuy wax jibril jabrail ah jiba jibaan comme mikail mikail ak am na beneen tur mikaala am na beneen seen tur yooyu yëpp benn tur bi kese la ibnu abbas nee na jibril li muy tekk mooy jaamu yàlla abdullah mikail li muy tekk mooy ubaydullah ibnu abbas loolu la wax nee na jibril lu muy teg mooy jaamu yàlla yàlla ne képp ku noonu jibril keroog bi leen yonent bi waxee man de jibril moo may indil wax yu ñu ne wuu kook sunu noonu la ndax moo fi indi mbiru xeex mala mikaayil moo ko gën ndax mikaayil moo indi taw bi mikaayil mooy sunu xarit amma jibril soo waxoon mikaayil sax ñu nangu topp la quoi mais comme mi jibril nga wax nag non kooku moom duñ la topp wallaay bu yonent bi waxoon mikaayil la tamit ñu bañ ndax ku bañ moom day day làmbatu rek ku nar a bañ day làmbatu rek waaw élegis benn yonent bu ñëw bu ñu yónni benn waay ñëw daa ne diw nee na nanga mu ne ah comme yow la yónni sax day non non bu yónni woon sax keneen bu keneen ñëwee di loolu lay wax rek ku xasa bañ bañ nga yàlla ne leen man képp koo xam ne kaana dafa nekk adduwan di noonu li jibril jibril fa innahu moom jibril nazzalahu ala qalbika fa innahu moom nazzalahu ala qalbik jibril moo ko wàccee alquran bi ci saxol ala qalbika nazzala jibril alquran ala qalbi rasulillah jibril moo wàcce alquran bi ci xolu yonent kon ku ko bañ tamit tooñ nga ko moom dañ ko yónni rek yàlla moo ko yónni alquran boobu mu wàcce ci yow musaddiqan day dëggal lima bayna yadayhi lépp lu nekk ci kanamam ci ay téere yu ko jiite wu injil tawraat zabuur waaye wa hudan alquran bi njub la wa busra day bégale lil muminina ñeer ñi ragal yàlla gis ngeen alquran liñ ci yàlla wax bu fekkoon ne gëm nañ ko kon du nu toll fii alquran dafa ñëw di dëggal téere yu ko jiitu woon benn waaye alquran dafa ñëw nekk xudan nekk njub jàngeen ci weeru koor yàlla ne shahru ramadan allazi unzila fihi alquran lan la ci tag hudan linnas hudan alquran njub la jàngeen ci suratul baqara yàlla mu ne zalika alkitab laa rayba fii hudan alquran dafa ñëw pour nit ñi jub léegi nag li nga xam ne dafa ñëw pour nit ñi defaru nit ñi baax nit ñi jub su ko nit ñi bàyyee nit ñi nit ñuy baaxee est-ce que danañ baax du ñu baax kenn du baax loi yaa ngi nii loi Jean ak loi Paul mi ngi nii ñuy topp kenn baaxu ci ñun ñëpp lan lañ mujj jural mooy ñu am jikko jikko Jean ak jikko Paul ak jikko Thérèse góor ñi jikko Jean ak Paul lañ yor jigéen ñi jikko Thérèse ak Émilie ñooñu ñoruñu jikko alxuraan suñu yoroon yaay yonent bi mu génnee àdduna saxaaba yi dañoo def délégation ñëw ci yonent bi ne ko yonent bi lan moo doon dundam lan moo doon jikkoom mu ne kaana xuluquhu alquran lisa kaana xuluquhu alquran jikko yonent bi moo doon quran yonent bi lan la doon dund mooy alquran bi ñu tiim di ko jàng bépp aaya bu ciy digle lu baax yonent bi def na ko bépp aaya buy tere lu bon yonent bi bàyyi na ko alxuraan ñaari façon la dafa amoon alxuraan buy dox ak alxuraan bu ñu bind ci ay këyit alxuraan bu doon dox bi mooy mu yonent yàlla muhammad moo doon dox nekk alxuraan buy dox mu jël alxuraan boobu dund moom mu dund ko mu dundloo ko saxaaba yi saxaaba yi dund alxuraan bi ba mel na yonent yàlla muhammad nuru ak moom ndax yàlla moo leen ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nit dafa bëgg ku muy toppandoo yàlla mu ne yéen jullit ñi kenn dong ngeen war a toppandoo ci àdduna kenn ñi ne kan mu ne Muhammad est-ce que julliti Sénégal Muhammad la ñuy toppandoo tontu leen ma de ndeysaan fi mu nekk nii kilifa diine gu nekk am nga ku lay toppandoo da ngay ba ci mbax na yi ba ci mbax na yi ay benn waaye bu xëy rek dóor beneen mbax na nga ni ko lii nag ne man ci ñuy sol mbax ne bi kër googu laa bokk ñi kiris karas ban kër lañ bokk kan la ñuy toppandoo ci loolu ñi dabalaa nag ñooñu kan la ñuy toppandoo gis nga Sénégal ku nekk am nga koo toppandoo ba mu des Muhammad ak néew nga gis fi nit muy dox ci façon yére bu mu sol wala mbax ne bu mu sol wala kaala gu bu mu kaalaw ba nga ne ko waa yow lii nag te nag koo fi toppandoo sixi la ba mu des Muhammad Sénégal Michael Jackson xam ngeen ko ah ban tubéy la daan sol nga gis ñu ne jëf Michael benn ibaad def ko ñu ne eh yow seen kër daataa yow xanaa seen kër daataa e Ibra cëkkal e Modou gàttal bu dee jigéen buy muuru ñu ne yow da looy muuru mel ne malaaka ni kan moo leen wax malaaka day muuru wala yéen da ngeen mës a gis malaaka mu muuru wala du loolu la ñuy wax koo fi toppandoo am nga succès ba mu des Muhammad Sénégal koo fi toppandoo am nga succès ba mu des Muhammad Muhammad moom boo koy déma toppandoo dañ lay sabati yenn saa yi gis benn paa bu leen mais yow mais yow sa barbe bi foo jëmee moom yow sa sikkim bi nag xale bu ndaw naan sikkim wala nga ne ko kii yonent bi mooy nañ ko fi bàyyi wala waaye ban yonent bi wala yéen yonent bi waxul nañ fi bàyyi sikkim yi yonent bi nee na waxful liha bàyyi leen sikkim góor day bàyyi sikkimam yaay aysa nee na subhaana man yujammalu rijaalu bil liha sell ñeel na yàlla mi taaral góor ñi ci sikkim yonent bi nee na xaaliful yahud wan nasaara wuutale nag chrétien yi ak juif yi chrétiens yi dañuy war sikkim bàyyi mustaas nga gis ci Sénégal ay kilifa diine yoo xam ne dañuy gor sikkim bi ba mu set daal di bàyyi affaire bi mu ne nii mos naa ko wax benn waaye mu mer fekk liñ doon wax sax day wallaay du problème mu sikkim ñu ngi doon wax ci lak takkalam ma ne ko jullit du takkalam mu ne ma sëriñ diw day takkalam ma ne ko law kaana la ilmu min duni tuqaa sharafan la kaana xayru xalqillaahi iblis bu fekkoon ne ku am xam-xam ragal yàlla iblis ragal yàlla adduna bi yëpp iblis moo leen raw waaye ragal yàlla ma ne ko am xam kon takk sëriñ bi di takkalam amul important mu ne ma léegi nag loo bëgg a wax ma ne ko déet ma ne tali waxu borom xam-xam yi rek iblis bu fekkoon dafa ragal yàlla boo fi ëpp xam-xam wala iblis amul xam-xam iblis bi ñuy defar aadama mu ngi taxaw wala bi yàlla li bindi aadama iblis mu ngi taxaw ah da ngeen fàtte usjudu li aadama boobu kan lañ wax kan moo taxawoon ñan la yàlla doon jox ndigal loolu malaaka yi ak iblis kon mi ngi taxaw kon kay am na xam-xam xam na li yàlla bindee aadama moo ko wax yàlla xalaqtani min naarin wa xalaqtahu suuf si foo def ni iblis julli na ko benn bàkkaar la am yàqu la benn benn benn moo amul juróom de iblis benn bàkkaar ki salaam yàqu la ñun ñaata lañ am ndeysaan yonente bi neen wuute leen ak yahuud yi yahuud yi ñoom dañuy bàyyi lii wàcc ñu bàyyi lii mu wàcc ñaar yëpp dañ koy wàcc dañuy bàyyi bi bàyyi bi yonente bi nee na yéen wàññi leen bii bàyyi bii waafu la wax waafu liha bàyyi leen ko fi ndigal ndigal lañ ci jot su la benn paanee te yow lii nag nga ne ko ndigal laa ci jot ku joxe ndigal gi nga ne ko Muhammad ah du yéene wax ndigal topp rek wala yéene wax ndigal wala ndugal wala dégg naa ñu koy wax de ndigal ndugal xaw ma ndigaale xaw ma ñu ne ndigal soo mënee defal boo mënul defal lii ndigal lañ ci jot moo tax ñu koy def ah man sama bos bokk ndigal laa ci jot xaw ma yéen nag borom bi tabaraka wa taala mu ne képp ku noonu jibril ci li mu wàccee ci xolu yonent yàlla muhammad te loolu bi mu koy wàccee mu ngi koy wàccee bi iznillah te alquran boobu mu wàccee musaddiqan day dëggal lima bayna yadayhi lépp lu nekk ci kanamam wa hudan njub la wa bushra day bégal lil muminina ñeel ñi gëm man képp koo xam ne kaana nekk na adduwan di noonu lillaahi yàlla wa malaayikati yi ak malaakam yi wa rusulihi ak yonent yi gis nga ku noonu yàlla nan la nit di noonoo yàlla mooy la yàlla wax nga lànk bañ koo def wa malaa'ikat yi nga noonu malaaka yàlla yi comme li yahud yi wax naan jibril mu fi indi alxuraan seen noonu la wa rusuli yi ak yonent yi nga xam ne yàllaa leen yónni pour ñu ñëw tette jaam ñi yóbbu leen ci yàlla wa jibril gis ngeen jibril malaaka bu màgg ci yàlla la yàlla bi mu ne wa malaa'ikat yi rek doyoon na jibril lañ ci biir wala doyul nekkul ci biir waaye yàlla xoola seettewaat turam génnewaat ko ndax jibril foor bi ñu foor jàngeen ci alquran yàlla di tagg jibril yàlla mu ne jibril si quwatin inda zil arsh makinin mutaain thamma yàlla nee na jibril ci man thamma foofu malaul aala amin fa wóolu la ku ñu fa wóolu la jibril li tax yàlla daf ko amin jibril moo nekk yonent bi malaaka bi dox diggante yàlla ak yonent yi yàlla dafa wóolu jibril ba daf koy yónni digganteem ak malaaka yonent yi yonent yàlla muhammad kan moo ko doon indil alxuraan jibril alayhi salaam waaye xoolal Sénégal ni ak a ñoo yab jibril wala te saa nga dégg ñu ne Jibril ñëw na fee ñëw na géejawaay Jibril gis nañ ko Sàndaga Jibril démb jaaroon na Mermoz yéen yaa Jibril dafa am suñu jot Jibril amul jot waa Sénégal Jibril ye yonent yi ñoo nekkoon ci kaw suuf Jibril di wàcc di leen fee gis yonent yi jeex na Jibril wàccatu kenn jàngul fenn ci sunna ñu ne ginnaaw yonent bi mu génnee àdduna Jibril ñëw na fi te pourtant ñu baax ñu ngi woon ci kaw suuf de Aboubacar mu ngi fi woon est-ce que dégg nga ñu ne Jibril ñëw na ci Aboubacar bi yéen bi fi Aboubacar jógee est-ce que amul ñeneen ñu baax ñu fi des Omar nekku fi woon est-ce que jàngeen fenn ñu ne Omar Jib- Jibril ñëw na ci moom. laylatul qadr ñu ne Jibril day ñëw yàlla moo ko wàcce tanazzalul malaayika ruuhu fiha yàlla moo ko jox ndigal mais bu ko yàlla jox ndigal du ñëwee ñëw gis ngeen ñoom lu tax yàlla moo ko jox ndigal laa yaasuuna allah ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun ñoom ndigal rek la ñuy xaar ñoom ay robot lañ robot defal ñu def taxawal ñu taxaw am na malaaka yoo xam ne bi yàlla bindee asamaan bi ba léegi dañoo taxaw rek di kàbbal am ñu rukkoo am ñu sujjóot loolu rek mooy seen métier jàngeen ñi ne asrafil ki yor buftu bi nga xam ne bu ëffee ñëpp dee kooku bi ko yàlla bindee ba léegi dafa en genou yor buftu bi ne ko nii taxaw en genou teg benn tànk bi benn bi mu samp ko mu ne nii boobu ba léegi noonu rek la ko def nii borom xam-xam yi nee nañ du sax xef ndax dafay yaakaar na buy xef yàlla di ko jox ndigal mu am yéexaay mu ngo ñoom laa yàqallah maamarawum képp ku noonu yàlla noonu malaaka yi noonu yonent yi gis nga yonent yi boo ci bàyyee ne boo ci bàyyee benn yonent benn yonent yëpp nga wedd benn yonent boo ko weddee yonent yëpp nga wedd benn rek waaye mu tegaat ci jibril wa mikaala mooy mikaayil yàlla mu ne képp ku noonu ñii fa inna allaha yàlla aduwun noonu na lil kaafirina ñeer yéeféer yi ku noonu malaaka yàlla yi noonu yonent yàlla yi noonu jibril noonu mikaayil yàlla nee na man noonu naa la yow sama noonu la ku noonu yàlla nag foo jëm mbokk yi aaya yi ñuy jàng dinañ ci jëlee ñeenti mbir te mooy fi ñuy jeexalee bi ci njëkk mooy sixatul islaam lislaam mooy diine ju wér wa butlaanil yahudiya yahud seen diine baaxul ku ci nekk boo ko bàyyil boo dee da ngay dem safara lislaam mooy diine ju wér moo tax yàlla amul diine bu tudd yahud amul diine bu tudd nasaara yàlla nee na maa kaana ibrahim yahudiyan wala nasaraaniyan da ngay dégg même fii yenn saa yu julli di daanu yenn saa nga dégg benn julli bu ne sunu mbokk chrétien yi xanaa sa mbokk sunu mbokk yahudi yi wala nga dégg ñu ne yàlla ñetti diine la am da ngay dégg ci ci conférence yi ci rajo yi da ngeen koy dégg ñu ne yàlla ñetti diine la am diine yahud diine nasaara diine lislaam du dëgg de yàlla benn diine la am yàlla amul ñetti diine inna diine ind allah ay na yahud ay na nasaara benn diine moo am muy islaam moom la yonent yépp indi diine bi ñu nekk moom la aadama indi woon moo tax bépp yonent bu ñëwee lu muy wax jàng leen Yaaqub jàng leen histoire Ibrahim yàlla lan la wax wa wasa biha ibrahima banihi wa yaquba ya baniya inna allaha astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum yahud ah fala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee dajeg yàlla dul ay julit ngeen gis nga waxul wala tamutunna illa wa antum yahudiyan aw nasraniyan wala tamutunna illa wa antum muslimun ñoom ñëpp loolu lañ wax ñoom ñëpp ñoom ñëpp ndeysaan ba ci yusuf ñun ñëpp ku nekk bu ngay dee looy wax yàlla naa dee nekk jullit keroog ba yaaquba di dee dafa dajale doom yi ñoom ñëpp ñu toog mu laaj leen benn laaj benn kese mooy lan maa taabuduuna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw tey sénégalais buy dee mu woo doom yi ñu ñëw danaan leen Moodu yaag Abdallah nekk leen benn ñun problème mu àdduna rek ey waaye jàppante leen bëggante leen kër yi ne kii jël oto bi gis ngeen alal ji lii moo taxoon ma am ko kër yi nii laa ko doon tabaxee tool yi nii laa ko doon gérer compte yi nii la lii moo fa nekk Yaquba waxul lool de daf leen laaj benn baat xam ngeen baat bi mooy lan mooy maa taabuduuna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw mbaa duma dee ngeen nekk ay rappeur watu ay dabala kiriskar seen tube yi ah qaalu ñu ne ko naabudu ilahak wa ilaha abaik ibrahim wa ismail wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu gis nga ñëpp muslim lañ indi amul benn yonent bu indi yahud amul benn yonent bu indi nasaraan moo tax di waxal yàlla di di di ko tuumaal naan yàlla dafa am diina bu tudd yahud wala diina bu tudd nasaraan tooñ nga yàlla yonent yàlla muhammad moo mujjee ñëw muslim boobu la indi muslim wala tamutunna illa wa antum muslimun ñun ñi loolu lañ ñu wax wala tamutunna illa wa antum muslimun mboolem yonent yi loolu lañu indi l'islam mooy globalement diine bi ci la aadama woote ci la nuux woote ci la ibrahima woote ci la muusa woote ci la muusa woote ci la yusuf woote ci la isa woote ci la muhammad woote sallallahu alayhi wa sallam kon islam moo wér sixatu islam wa butlaani alyahudiya wa zalika li fasali alyahud fi lmubahalati bi tamani lmawt yàlla dafa échec loo yahuud yi ne leen yéen nee ngeen yéen a moom alaxira mébét leen dee rek la leen yàlla yàqale ñaareel bi mooy almuminu saalih yufaddilu lmawt ala alxayaat limaza lima yarjuhu min rahati wa saadati bada almawt jullit bu baax day bëgg dee moo tax boo feebaree nga tiit ci sa bopp wala sax feebaroo dara dalu la bokk na ci say ñaan nga ni yàlla yàlla nang ma rey bu fekkente ne xam nga ci man dee moo gën ci man yow yàlla yàlla nang ma rey yow yàlla yàlla nang ma rey bu dee dee moo gën ci sama dund yàlla nang ma rey loolu dafa bokk ci ñaani jullit jullit dafay bëgg dee lu tax day bëgg génn ci àdduna lu tax lima yarju min raha ndax day yaakaar noflaay ëllëg wa saadati baada al mawt ak texe ginnaaw dee loolu moo tax nga bëgg dee da nga yaakaar dugg aljanna da nga yaakaar dajeeg sa borom ibnu taymiya gars yi waxoon nañ ko ibnu taymiya loolu jàppi ibnu taymiya bàyyi li ngay wax soo bàyyi li nga wax dañ lay tëjje mu ne bu ngeen ma tëjee ma dugg xalwa mën a wéetal sama borom ñu ne ko dañ lay exiler mu ne ma def tour du monde am xam-xam ñu ne ko dañ lay rey mu ne ma dajeeg sama borom dugg aljanna kooku ko mën a xeex soo ko ne dama lay tëj mu ne ma mën a naafi la lu baree bari di woor lu baree bari di jàng téere yi lu baree bari ñi gëm yàlla seen kaso yi sax ñoom dañ fay jaamu yàlla kaso yi jàng ngeen histoire Yusuf keroog bañ ko tëjee ci kaso lan la def dafa soppi kaso bi madrasatu tawxid fa isa bi Yusuf yuhawilu sijin madrasatu tawxid mu ngi naan waa kaso bi yaa saahiba sijin a arbaabun mutafarriquuna xayr am illahu wahidil qahaar ah yaa saahiba sijin a arbaabun mutafarriquuna xayr am illahu wahidil qahaar fan la mujj mooy kaso bi ñëpp nekk kaso tawxiid léeg-léeg ñu jàpp nit tëj ko kaso ñu yaakaar ne loolu da koo sonal ku gëm yàlla boo ko soppee boo ko dugalee ci kaso sax mu liggéey ku gëm yàlla foo ko dugal mu liggéey foo ko yónni mission mu liggéey bu fekkee rey moo ci mujj boo ko reyee mu dajeek yàlla dugal jàng moo tax jullit amul pertement bu fekkoon ne dégg nañ diine bi kon islamisé nañ àdduna bi bu yàgg du ma wax Sénégal de àdduna bi ndax saxaaba yi ñoom dañoo déggoon diine buñ daan xeex ak nit ñi dañ daan imma shahada wa imma nasr bu ngeen ñu bàyyee ñu samp kàddu yàlla bu ngeen ñu reyee ñu dugg aljanna imma sahaada wa imma nasr kon jullit bu bëgg yàlla day bëgg dee ndax day xam ne bu deewee noppalu ñetteel mooy sidqul quran alquran dafa dëggu lu tax alquran dëggu fi ma axbara bihi an il yahud min xirsihim ala alxayaat alquran ñëw na nañu yahud yi bëgguñu dee dañoo bëgg dund tey ñu teg ci suñu bët jaxran ñu teg ci suñu bët ne yahud bëggul dee wallahi ñeenteel mooy adaawatullahi taala lil kafirin yàlla dafa noonu bépp yéeféer képp kuy yéeféer yàlla noonu na la walisa mbokk yi looloo tax wajaba dina war alal mu'min cib jullit mu aadaatu ahlul kufri nga noonoo ak képp koo xam ne yéeféer la yow dafa war a nekk sa noonu bépp yéeféer bu weex mbaa mu ñuul mbaa mu xonq mbaa mu weex dafa war a nekk sa noonu mais maa al asaf tey noon yi tey sunu ndaw yi noon yi la ñu faral noon yi noon yi yàlla yi la ñu faral ndax kiris karas sa tubéy moom xam ngeen ab jullit du ko def ci fan la jóge ci yahud yi yokk sa bopp mees fu mu jóge ci yahud yi xeesal fu mu jóge nga gis jullit bu jàpp boppam soppi bopp bi soppi yaram bi soppi gémmiñ gi soppi xef yi soppi wey yi ah soppi yëpp soppi ba soppi tur tur bi ay solo tuddoon léegi noo tuddoon mu ne lan Alexis au lieu de Aïcha Khadija la tuddoon noo tudd Dixa Fatima la tuddoon noo tudd F Malik la tuddoon noo tudd Milk Muhammad lañ ko tuddee woon noo tudd Muha Muha ak Muhammad gaa Muhammad tur bi dafa neex dafa am vitamine C waxal Muhammad nga wan na ko nga xool da nga yëg nu mu safee Muhammad moo tax yë yëhut tubaab yi li ñuy bon bon bon bon araam lu ñu wax Muhammad xam nga lu ñuy wax maawu mee maawu mee lu ñuy wax moom Muhammad ah maawu mee est-ce que mënuñu bind Muhammad en français yéen ñi jàng tubaab Muhammad mun ngeen koo bind ci lettre yi ba mu nekk Muhammad wala mun leen ko mais da ngay dégg ñu ne maawu mee luy maawu mee yàlla mu ne Muhammad ñu naan maawu mee képp ku baax tubaab bi dañuy soppi turam boo ne Ibrahim ñu ne ah waaw waaw duñ ko bind ba boo amee doom di bind Muhammad duñ ko bind jamais foog ñu yàq ci benn lettre moo tax nga gis fii ñu bëri Muhammad lañ leen tuddee mais seen tur yi ay moodoo ah ak lan Ahmed ak Ahmed xoolal Ahmed ah Ahmed Ahmed du Ahmed Ahmed xam ngeen ne Ahmed amul ci arab Ahmed bind leen ko ci arab Ahmed amul ci arab Ahmad Ahmadu ñoo ñëpp Muhammad ndax iñaan bu ñu iñaan rek bañ a wax benn femme dafa nekk kër sœur doomam feebar ndeysaan suba teel bu ne mu indi xale bi ñu faj ko xale bu rafet benn jour rek sœur bi ne ko yow doo may sa doom waaw déedéet xam nga mu ne yow sa doom bi mu ne Muhammad rek bu bàyyi xale bi mu daal jël mu jël xale bi keroog la ko gëj a yóbbu tur bi daf leen a dérangé Muhammad bokk na ci li ñuy wax tey axsa ma naxsaahu l yowma an yazhara fi l aalami l arab muhammadun jëkk bokk na ci li gën li ñu gën a ragal tey moo tax ku woote ku ne rek ñu song la nee dañoo ragal ku mel ni Muhammad ñëwaat ci aalam bi ku mel ni Muhammad dañoo ragal mu ñëwaat tey ci adduna bi parce que xam nañ ne Muhammad bu dekkiwaatoon tey rek dina islamiser adduna bi balaa balaa balaa diggante tàkkusaan ak timis mu islamiser adduna bi wallahi lazim moo tax ñu ragal ko aka neexoon taalibi Muhammad yi ñu xam kan mooy Muhammad waaye maa asaf Bob Marley sax ngeen gën a xam ak Muhammad Bob Marley am na ñoo xam ne Michael Jackson sax lañ gën a xam ak Muhammad ñooñu sax dañoo sori naa leen wax ñu nekk seen dëkk am ñoo xam ne Youssou Ndour lañ gën a xam ak Muhammad ak ñoom Kumba Gawlo ak mbër yi lañ gën a xam Muhammad boo waxoon léegi mbërum géejawaay bi papaam ak yaayam nu mu tudd ban année la juddu ñaata at la am ñaata kilo la ñaata nangam la ñan la daaneel nga gis benn waaye bu trouvé léegi la ku weddi tegal sa portable léegi nga perte ko waaye boo nee Mouhamed ñu ne boo nee Mouhamed ñaata doom la amoon fan la juddoo ban année la juddu alxuraan bi muy wàcc ci moom ñaata at la am kenn du trouvé bi muy génn àdduna ñaata at la am ñaata saaba ñoo ko waroon kenn du trouvé wallahi lazim waaye boo ne équipe nationale Sénégal bi demoon coupe du monde ñan ak ñan la nga ni teg naa sama portable bi ku wax classement bi ma jox la ko sa portable bi danga koy jëlaat wala danga koy perte danga koy perte boo ne yonent bi ñaata saxaaba la amoon nga teg portable bi danga day delluwaat ci yow wala danga koy perte teg naa sama portable yonent bi ñaata saxaaba la amoon ñan ak ñan la waaye bu ma demoon équipe nationale léegi ma perte sama portable bu ko ma sax équipe nationale Sénégal équipe nationale France bi jëloon coupe du monde bi classement bi ñan ak ñan la ku nekkoon ci camp yi latéral gauche droite droite libéro bi extérieur ñaari milieu terrain bi ailier yi neuf bi dix bi léegi gars yi tegal la classement bi waaye boo nee yonent bi ñan ñoo ko waroon am na fi benn waaye ndeysaan ci kilifa Sénégal yi mu naan yonent yàlla Abbas Abbas yonent la woon ndax réer gu mu réer yonent yàlla Abbas waaw ndeysaan Sénégal dañoo réere lépp ci lislaam dañoo réere yonent bi réere sahaaba yi réere waa kër yonent bi xam ñeneen xam ba xam simbkat yi gaynde yi ak rappeurs yi xam ñoo xam ne dañoo xam ba xam fas yi daw France fas yi nga gis benn waaye bu toog fii Sénégal musul jàng tubaab mu topp benn fas France xam juróom-ñaari maamam ba pare naan kaay leen ma jaay leen fas nga gis kuy GPM ñu mu ne ko kaay ma jaay non gis nga ñii ñii nii fas yi ma def Londres laa leen toppee fas bu nekk mu xam juróom-ñaari maamam xam ba xam ay fas laa wax ay fas ay fas ñun tey bu ñu laajoon yonent bi ñaata fas la amoon xamuñu ko bu ñu laajoon yonent bi ñaata mbaam la amoon xamuñu ko ñaata gëléem la amoon xamuñu ko ñaata jaasi la amoon xamuñu ko ñaata yére la amoon xamuñu ko ñaata satal la amoon yu muy jàpp xamuñu ko wallahi ñun ñu xam ay fas yu juddoo France fas yu judd juddee Londres fas yu juddoo Amérique ñu koy indi ci Sénégal tey ay nit di ko jouer di gagné ndax xam fas yi li sa dëgg benn waay am na benn waay bu ñu daan teg ci rajo yi muy wax fas bi numéro 7 bii maama ma nga juddoo Angleterre dawoon na moo jëloon nangam ak nangam numéro 8 bi numéro 9 bi numéro 10 bi xam fas xamoo yonent nga xam ay fas yal nañ yàlla jubal yal nañ yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp mbokk yi ñeenti aay yi wala juróomi aay yi fii la ñuy yem ba suba ak jàmm yal na yàlla def ñu dëgg topp salaamaaleykum